أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على محجة بيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي سادات القادات الفكر الإسلام سيد الفضيلة الإمام الأكبر الإمام أبو بكر جاه نحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi ginnaaw buñ tàmbalee ci tur yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal suñ yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal tumusal ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mbokk jullit yi nuyu lislaam di ci jiital ki nga xamante ne mooy ilimaanu dëkk bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñun ci ginnaawam di leen nuyub nuyub lislaam di leen ñaanal jàmm yàlla ak yërmandeem yàlla ko yàlla def ci ñoom li ci topp mooy fàttali bi nga xamante ne dañ ko fas yéene fàttali ndax mbokk mi sànq ci jàkk ji wax na ko maa ñëw ñu fi indi xam-xam te dañ ñëw fekk suñuy mbokk jullit ñu invité ñu ñëw fas yéene fi def benn fàttali boo xamante ne dañu bëgg ñaan yàlla subhanahu wa taala ñun ñuy wax mu jëriñ ñu ak ñëpp ñi nga xamante ne ñun ñooy dégg daanaka fàttali bi ñun ñi nga xam ne ñoo koy fàttali sax ñun ñoo ko gën a aajowoo ñi nga xamante ne ñoom lañ koy fàttali waaye yàlla moo ne fàttali ndax fàttali day jëriñ julli thème bi nga xamante ne man moom laay def mooy mandarga bis penc ay mandarga yoo xamante ne ki yàlla yónni woon ci ñun moo ñu ne su ñëwee rek bu yeboo ngeen xam ne yow man xëy am ci xaw na mandarga yooyu nag fanweer ak juróom lañ doon tënk waaye incha allah ci kàttanu yàlla nañ tënk juróom ndax mbokk mi mën a def moom it waxtaanam ñun juróom rek la ñuy jël juróom incha allah mbokk yi waaye bis penc li gën a yéeme mooy yàlla mu ne day ñëw ndax moom moo koy indi. kenn du ko indi ku dul moom waaye yàlla nee na nëbb na ko lu tax ndax kenn ku nekk la nga jëf mu moom mu fas la mu fas yéene la ko fay mu ne lu tujjisee kullu nafsin bi ma tasa mu ne bés penc mu ngi ñëw waaye man yàlla nëbb naa ko lu tax ndax doomu aadama yi prépare ko ndax kenn ku nekk la nga ca jëf loolu laa lay fay waaye mu ne Muhammad na nga déglu bu baax ma wax la ndax am na ci ñoo xamante ne ci doomu aadama yi gëmuñu bés penc ñoom luñ gëm ne dañuy dund rek bu ñu dee jeex na wa maa yuhlikuna illa dahr dara duñu alag rek lu dul jamono ji bu ñu dee rek jeex na kon yow Muhammad ak jullit bu mel na yow jullit boo xamante ne gëm na yàlla moomoom addina bi gëm na yàlla moomoom àllaaxira gëm na ne yàlla moomu dina ko rey dekkil ko mu taxaw ci kanamam yàlla ne jaam bi yaay kan li ma la santoon ci adduna lan nga ci def kon jullit boobu na déglu bu baax a baax li yàlla wax Muhammad fala yasuddunaka anha man laa yuminu biha wattaba hawaahu fattarda am na koo xamante ne gëmu ko dawul bis penc ba mu ngi baare nit ñi sax ci pour ñu gëm bis penc waaye yow Muhammad kooku de bu ko déglu ndax waa jooju dafa topp ay bànneexu bakkan beneen aaya yàlla mu ne wa qaala alladina kafaru laa taatiina saa yéeféer yi nee nañ bés penc du ñëw nañu foof nañu xumbal nañu simb nañu tuural nañu pëjëm nañ def ay jàkkaarloo ah xanaa nag ku ñëw ba gore moom di fi wax doo doo dootoo wax ñu dem sorti kon na ngay tëb boobu point rek ndax yaakaar naa sorti fii la fekk baax wa qaala alladina kafaru laa taatiina saa yéeféer yi nañ bés penc du ñëw ku nekk na def lu ko neex yàlla mu ne Muhammad waxal te ne nga giñ qul bala wa rabbi kan moo giñ kan moo giñ mbokk yi kan mooy giñ kan moo giñ yàllaay giñ lu muy giñ mu ne yow Muhammad na nga wax bala wa rabbi la taatiyannakum alimul gayb dina ko indi ci yéen kan buur bi xam tey lu xew xam li suba li xew xam ginnaaw suba xam fii ba adduna bi jeex adduna bi ni mu ko pro programmé li fiy xew li fiy dox buur boobu moo ko indi ci yéen donte ne su leen neexul yàlla ne ne dinaa ko indi kon waaye kenn xamul kañ la kenn xamul bés penc kañ la kenn xamul kañ la ku dul yàlla dafa mbokk ci ay mbir yi nga xamante ne yàlla rek moo xam bés penc kañ la yàlla rek moo ko xam kenn xamu ko ku dul yàlla képp koo dégg mu ne xam naa bis penc ci kañ la jàppal ne waa ji weer a cëriñ bu moom loo biram bees rek di wax lu ko nekk waaye kenn xamul kañ la ku dul yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam sax li muy rëy fonk li ko yàlla di fonk li muy rëy rëy ci yàlla xamul bés penc ci kañ la lu tax xamul bés penc ci kañ la benn bis jibril dafa ñëw toog di wax ak moom jibril ne ko muhammad islam mooy lan mu ne nga seede ne yàlla kenn la muhammad yàllaa ko yónni taxawal julli juróom woor weeru koor joxe azak dem màkk benn yoon soo ko mënee mu ne ko ngëm yàlla nag mu ne ko da ngay gëm ne yàlla kenn la gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yi gëm allaaxira gëm dogal li neex ak li naqar yi mu ne ko bés penc kañ la mu ne ko yow mi koy laaj yaa ko gën a xam ki nga koy laaj kon Muhammad xamul kañ la su fekkoon xam na kañ la bu Jibril laajee day tontu waaye dafa ne ko yow mi ma koy laaj yaa ko gën a xam ki nga koy laaj jibril na ko jox ma mandarga yi mu commencé di ko ko wax commencé di ko wax ne saa ñu demee ba gis nangam bis penc ngi jege saa ñu demee ba gis nangam bis penc ngi jege moo tax yàlla mu ne yasalunaka ani saa ayyaana mursaaha gaañaa ngi lay laaj bés penc kañ la ko yàlla di xaw mata taxsulu fi ay waqtin yuqimuha allah kañ lay am ak ci ban waxtu la ko yàlla di taxawal lan la muhammad tont lan la yàlla wax fi ma anta min zikraha innama anta mundiru man yaxshaha kaannahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha mbokk yi ëpp dund at ci àdduna su bés bañ ci jotoon ñu ne ko ñaata at nga am àdduna danaan suba laa fi ñëw wala ngoon xam ngeen lu tax inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ñun suñu junni at mooy benn bisu yàlla kon ku fi am téeméeri at ñaata at nga am ci yàlla ñaata minute fii ku fi am téeméeri at ci yàlla ay minute nga am ci nga jaar ci àdduna te xoolal àdduna bi jeex na moo tax Muhammad mu ne bu ustu wa saaka hatayni bi ma yàlla di yónnee àdduna bi fi mu jeexee mi ngi mel ne ñaari baaraam yi xam nga ne ñaari baaraam yi duñ sutante bëriwul beneen bi mooy nuux mi nga xamante ne moo fi ëpp lu mu dund ay at ci nit ñi ñaata at la nuux dund junni at yu manqué juróom fukk Jibril da doon laaj nuux ne ko yow mi nga xam ne nit ñi yaa fi ëpp at yoo dund ñoo ngi lay laaj loo gisee àdduna mu ne raaytuha ka daar àdduna daal gis naa ko mu mel ne benn kër bu am ñaari bunt ma jaar ci buntu kër gi génn buntu kër gële moom noonu la gisee àdduna mbokk yi ñun tey nan lañ jàppee àdduna ah nan lañ jàppee àdduna ñun tey mbokk yi nan lañ jàppee àdduna jàpp ne àdduna du jeex jant bu fankee du sow wér bu yaram bi nga nekkee feebar du ñëw sa alal bi nga nekkee doo doo mës a ñàkk temps bi nga am ah bés bi ñëw nga soxlawu nga occupé dootoo am loo def ñun noonu lañ jàpp àdduna jàpp ne dañuy feebar te dañuy wér dootuñu feebar jàpp ne dañuy dund dootuñu dee jàpp ne dañuy am dootuñu ñàkk rek ñu continue ci suñu caaxaan nekk lu ñu neex ñu def bu ñu neex ñu yend lu ñu neex ñu wax nekk ci caaxaan yooyu ñun noonu lañ gis àdduna waaye nuux mi nga xamante ne dund na juróom fukki at yu manqué juróom fukk bi ko jibril ne junni at yu manqué juróom fukk bi ko jibril ne noo gisee àdduna dafa ne comme benn buntu kër comme benn kër boo am ñaari buntu kër ma dugg fii génne fële xam nga ne loolu gaaw na de mbokk yi bés penc kenn xamul kañ la waaye li wóor mooy bésu àjjuma la bésu vendredi lay nekk lu tax ñu am fit ñeme wax ne bésu yowmal qiyaam bés bi àddina di tukki bés bi nga xamante ne jant bi day xëy so fan la jant bi daan sowe yéen waa Gorée su ngeen xëyee suba fan ngeen di gis jant bi fan lay nekk seen penk fan mooy penk bi fii ngeen koy jant bi huit heures jot neuf heures gis leen jant bi ngeen naan xanaa tey dafa xiin ngeen koy suba rek gis jant bi génn fii sow ngeen toog ban heure la génn huit heures huit heures et demi neuf heures weer wi génn ci suufam dem ba ci kaw weer wi bëgg a koj weer wi bëgg a raw jant bi jant bi daal koy koj mu ñëw càmmoñ weer bi koj jant bi koj ñu daal di ñëw ci digg bi yàlla nee na wa jumi as-samsu wal qamar ma boole leen adduna bi explosé tàkk ñëpp wow ñëpp lu doon noyyi daal di dee bés boobu bésu vendredi la ko yàlla di def ban la ci vendredi yi moo ko xam kenn xamul kañ la waaye tamit mu nekk rek bésu vendredi la koy la koy def ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo ñu wax ne bésu vendredi la mu ne xayru yawmin talaat fihi sams yawmul jumaa fihi xuliqa aadam alayhi salaam wa fihi udxila al janna wa fihi wa minha wa fihi xaraja minha wala taqumu saa illa yawmul jumaa yonent bi nee na bés bi gën ci bés bi mooy bésu ajjum ci la yàlla bind aadama alayhi salaam ci la ko yàlla dugal aljanna ci la ko yàlla génn bés penc du taxaw lu dul bésu ajjuma bés penc boobu du taxaw lu dul bésu ajjuma ci bésu ajjuma boobu la bés penc di taxaw ci ban waxtu ci waxtu tàkkusaan ci waxtu tàkkusaan tàkkusaan gi ngeen dégg yàlla naan wala asr ah tàkkusaan boobu nga xam ne ñun niñ ko jàppee tàkkusaan musiba yépp borom xam-xam yi nee nañ li tax yàlla giñ ci wal asr musiba yëpp tàkkusaan lay commencé kii xumbal ban heure lay commencé tàkkusaan lay ñëw bale terrain bi indi ay séy kii ko adra nag ban heure lay commencé tàkkusaan lay commencé pare kii dem sotti ban heure lay ñibbi tàkkusaan musiba bu nekk rek tàkkusaan jigéen ñi lang sax ban heure la ñuy tas seen lang ban heure lañ koy sos tàkkusaan moo tax yàlla gis giñ xool ni ñu ko ni ñu jàppee tàkkusaan ni ko nit ñi di alage yàlla mu ne wala asr giñ naa ci tàkkusaan innal insana la fi xusr doomu aadama perte ñu ne yàlla ñëpp mu ne déedéet illa alladina amanu ba mu des ñu gëm wa amilu salihat ba pare taxaw nag ci jëf ju baax a ndekki ngëm yàlla dafa am lu koy leeral lan mooy leeral de waa ji gëm na mooy ñu gis ko mu taxaw ci jëf ju baax ñu ci yem de wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr doomu ñëw kon bokk yi bés pénc bésu vendredi la ci ban waxtu ca wal as waaye comme kenn xamul kañ la doomu aadama yi doon nañ bëgg am ay mandarga yoo xamante ne danañ ko gis ndax bu bés pénc boobu mandarga yooyu wan leen ko ndax ñu mën a préparer loolu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tënk mu daan ñi ciy won loo xamante ne ëpp na ko sax waaye fanweeri juróom won nañu ko ci waaye ñu tënk juróom incha allah yoo xam ne yonent bi neen bu ñëwee rek na ngeen xam ne yowmal xiyaam moom jege si na islam wa ahlihi fi axiri zaman suñ demee ba ajira di waaj a jeex képp koo xamante ne jullit nga da ngay tumaranke waxuma kuy jullit jullit laa wax xam ngeen ne Sénégal manqué wul jullit lan la manqué jullit bu dëggu jullit bu dëggu ci diineem la Sénégal manqué waaye manqué wul jullit Mohamed a ngi nii papaam jullit la yaayam jullit la macha allah mbokk lan nga jullit jeex na lii rek lañ am ci islam tey islam ay pour lañ ci dese tuy sax changé wuñ changé nañ ko kuñ fi doon woowee démb Abou Bakr tey nu mu tudd ah Babs kuñ fi doon woowee Malick démb tey nu mu tudd Milk kuñ fi doon woowee Fatimata tey nu mu tudd Fa wala F kuñ fi woowee Khadija tey nu mu tudd Dixa kon amatuñ ci l'islam dara nuyoo yi sax changé nañ ko lan la islam waxoon nañ nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatullah tey nan la ñu néew waaye ni mu demee jaajëf waaye mu ngi dëgër waaw waaye di yëkkati loxo yi jëndal bopp yi lan lañ defee ci lislaam tey dara dara yonti waxoon na ko ne soo ajuna di waaj a jeex dara du lañ ci lislaam lu dul tur bi ndeysaan kaamil bi dara du ci nekk lu dul bind yi looloo fi nekk tey islam tur bi rek moo fi nekk kaamil bi bind yoo fi nekk jullit ñëpp boobu seen diine rus ñu ne tey ay jullit lañ moo tax islam a ngi nii tumaranke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ci hadisu abi hurayra radiyallahu anhu wa arda mu ne bada alislaamu gariban wa sa yauudu gariban kama bada fa tuuba lil guraba hadis boobu imam ahmad ak ibnu maaja ak ibnu mas'ud ñoo ko génnee mu ne islam bi muy commencé dafa tumaranke woon suñ demee ba àddina di waaj a jeex islam day tumaranke démb ku duggoon ci l'islam nooy def da ngay nëbbatu yéen a ngi fàttaliku bilaal keroog bu muy dugg dugg ci l'islam nekk ci biir nekk jaam nekk ci biir ay nit waaye xool leen ni mu tumaranke woon lañ ko daan def xool leen Musab ibnu Umayr nga xam ne mun nañu wax ne sapeur la woon moo fi dàqoon solu Màkka ndax benn doom la woon te yaayam amoon na ko te da koo reewaloon waaye xool leen ba mu duggee ci lislaam su ko yonent bi séenee muy ñëw yonent bi day jooy jóg taxaw di ko teeru ndax Musab mujj na ay saaku lay waddoo Musab ay saaku lay waddoo tey lislaam foofu la yem tumaranke lislaam tey foofu la tumaranke doomu lislaam yaa ngi nii seytaane di leen xëccoo ñu nangoo nekk lu nekk di roy yahut ak nasaraan rus a nekk ay jullit nga fekk nit ku ñuul kukk ku ne day borosu tefes bi ah dangaa bëgg a mel ne kër yi ah jullit yaa ngi nii tey mbokk jullit yaa ngi nii di daw diine muhammad nga la waay yéen ndaw ñi bu leen wax li baan banu israil waxoon Moussa alayhi salaam lan la banu israil waxoon Moussa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun bu leen wax loolu muhammad yéen ndaw yi bu leen wax loolu muhammad bu leen ne muhammad ñoo ngi fii toog demal yàgg sa borom dem leen ngeen woote ji déedéet waaye tamit bu leen wax la waa màkk waxoon maamu muhammad mooy inna lil bayti rabban yahmihi néeg bi am na boromam borom dina ko garde waaye yéen it mbokk yi bu leen wax diine ji am na boromam boromam dina ko garde diine ji dafa soxla ay ndaw diine ji mbokk yi dafa soxla ay ndaw ñaareelu point bi ci mandarga yowmal qiyaam ginnaaw ba jógee ci islam tumaranke gi muy tumaranke aaxiri zaman xoolal tey dam tuba tumaranke ñaareel bi mooy zihabu salihin ñu baax ñi dañuy dem al awal fal awal yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yazhabu saalihun al awal fal awal fa tabqaahu faala ko faala sair aw tamr laa yubalihum allahu baala rawaahu buxaari wa daari yonente bi nee na bu ñu demee baa dina di waaj a jeex nit ñu baax ñi dañuy dem kenn par kenn dara du fi des ci kaw suuf si lu dul ay xottu mbalit ay nit ñoo xamante ne ñoo xottu banaana xottu xaal xottu orange ñoo yem amaluñu islam benn njëriñ dañuy wàññi sax l'islam nee na ñooñu ñoo fi def ci kaw suuf wallahi looloo am tey tey dem nañ Sénégal ba bu amee ku dee dañuy wëri ku ko sang bu ñuy tudd foog élimaan ñëw bu élimaan ñëwul kenn du mënul tudd waa ji am doom xamul lu ñuy tudd ah dëkk ak dëkk tey la ñuy wëri kuy sang néew dëkk ak dëkk loolu yegg si na gore mbaa yegg si ko fi élimaan yegg si na fi kon na musiba am na mbir maa ngoog tey islam dafa tumaraanke lu ñuy def dañuy wëri ku koy def bu ñuy jàng alxuraan sax léegi dañ doon wër ku ñuy jàngal ba bi yàlla daal ñu di benn mbokk ndeysaan waaw akbar waaye bu njëkkul léegi ku mën a fecc fii jam loolu day moom kenn du ko wëri ku mën a fecc fii wala ku bu mën a waxu ju ñaaw loolu léegi nga gis benn waaye ne macha allah mbokk man pare naa mun naa maa ngi nii tey foofu lañ toll ñun loo bëgg ci islam da ngay wëri ku ko def waaye bu fekkente ne lu baax da ngay wëri fekkee lu bon ñëpp pare nañ pour def foofu lañ toll tey ñun mbokk jullit yi yonent bi nee na ñu baax ñi dañuy dem kenn par kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ajee aj gu mujj dafa ñëw ba ci keppaaru kaaba bi kaaba bi asnada zahrahu ala jidraanil kaaba fa baka fa jaahu abu bakar sadiq fa qaal maa yabkika ya rasulallah yonent bi dafa aj aj gu mujj ñëw ci waru tàkkusaan mu ñëw ba ci keppaaru kaaba bi daal di jël ndiggam bu tedd boobu daal di koy wéet ci kaaba gi rek daal di jooy jooy ba sikkim bi tooy abu bakar daw ñëw fekk sang bi di jooy mu ne ko maa yab ki ko yaa rasulallah yow yonent bi lu la jooy la yonent na ko wa kayfa la ab ki lu tax du ma jooy diine ji yàlla yónni woon na ma mat na tey yàlla nee na ma al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al islaama diina diine ji mat na sëkk tey yéen a ngi nii ñeenti téeméeri ak nii ngeen di mel garab gii ma fi bàyyi garab gu am xob la te du am dëkk mooy lan mooy yéen ñii jullit ñi ma fi bàyyi da ngeen di nekk ay jullit yu set wécc yoo xamante ne mushrik du am ci yéen bandi du am ci yéen kaafir du am ci yéen faajir du am ci yéen jullit yu set wicc ngay nekk ñeenti téeméeri at waaye yonent bi nee na bu ñeenti téeméeri at di jeexee di ngeen am juróom benn téeméeri at garab gi ma fi bàyyi woon dina am xob waaye garab gi dina am dëgg mooy lan yéen ñu baax ñi ma fi bàyyi woon dina am ci yéen ñu génn ci seen diine nekk ñu bon dina am ci ñu dee garab gi dina am ay xob yu wow waaye dina am dëgg mu ne waaye bu juróom benn téeméeri at yi jeexee garab gi day wow koŋ du am xob te day amay dëkk loolooy la mooy jullit dootu fi desati kuy jullit jullit rek moo fi nekk kuy jullit jullit lu moo fi des soo boolee ñeenti téeméer ak juróom benn ñaata la junniyaat junniyaat yi dem na yonent bi bi mu génnee àdduna bi mu ko yàlla yónnee léegi ñaata am na junniyaat ak ñeenti téeméeri at ak fukki at ak juróom-ñett 1418 tey hijriya ak léegi li yeneen ci waxoon ne suñ demee ba àddina di waaye jeex yàlla day teggi ñu baax ñi kenn par kenn dañuy dem ci bon rek ñoo fi des ay gaynde bi nekk ay rappeur ay simbukat ay fuuralmaan ujum ay boy disco booy branché wu ñoom ñoo fi des waaye doo gis booy julli booy julli du am wala booy julli am na ana booy julli ji ana ana ñu man gisuma kenn mbokk yi ñetteel bi ci mandarga yi riddatu aqwaamun kasir fi axiru zaman riddatu aqwaamun kasir fi axiru zaman gaa yu bare bare bare bari dañuy génn ci lislaam bu àddina di waaj a jeex lu tax ndax ay alalu àdduna ñenn ñaay alal ñoo leen di génne dañ leen di neexal rek ñu génn ci lislaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ci hadis sawbaan laa taqumu saa hatta talhu qabail min ummati bil musrikin wa hatta yubat qabail min ummati al awsaan yonent bi nee na buñ demee baa di waaye jeex ñu bëri ci sama xeet dañuy génn ci islaam dem di jaamu xërëm di bokkaale yàlla subhanahu wa taala di bokkaale hadis boobu mbokk yi muslim moo ko solo tey loolu am na jullit yu bare bari tey bokkaale moo leen génn ci lislaam xoolal tey nit yi dangay gis kuy waat bala muy waat rek tudd benn waay dafa ne loolu dëgg la te pourtant islam daf ko tere yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku giñ ci lu dul yàlla rek nee na yow bokkaale nga waaye génn nga ci lislaam faqad ashraka wa kafara waxuma bokkaale nga mais dafa ne génn nga ci lislaam kon ñaata sénégalais ñoo génn ci lislaam rek ñooñu sax ñooñu ndaw ñi mais ñeneen ñi ay xaalis lañ leen di neexal ñu bàyyi seen diine waxuma la bàyyi seen diine mais dañuy xeex diine ji xeex diine ji la ñuy def xeex diine ji lépp loo xamante ne dafa war a dañ ko war a def l'islam bi dem ci kanam ñoom ñoo koy xeex di agressé l'islam tey ñun noonu ñooñu lañ nekk tey yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne laa taqumu saa xatta yubaas dajjaaluna kazaabun qarib min salaasin kullun yazamu annahu rasulullah mutafaqun alayhi yonente bi nee na àdduna du jeex lu dul fanweeri fankat danañ feeñ sama ginnaaw kenn ku nekk di nga ne yonent laa yàlla la yónni ci mbedd Sénégal ngay tourné gis ay ay t-shirt yu ñu bind my prophet is black sama yonent dafa ñuul yonent bu ñuul ah Muhammad mooy xaatamul anbiya beneen yonent du ñëw ci ginnaawam ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allah wa xaatamal nabiyin kon fu ngeen jële ñeneen li muy tekki mooy ay franc-maçon ñoo neexal ay xaalis ñu nekk ay yonent ginnaaw Seydina Muhammad di woote yonent bi ma ne fanweer mais ëpp na fanweer tey lu gën a graaw sax mooy Sénégal am na yonent bu ñuul tey boo demee Gibraltar fekk ko fa muy woote te am nay taalibe ñëpp gëm ko bu jigéen ñu ne ko yàlla musul yónni yonent bu jigéen mu ne ak yàlla yónni na ñett benn soudanaise ak benn nigérienne ak benn sénégalaise man la xala ma lool ñëpp di ko dégg fii de kenn waxul ñaap ngay saan toog ñëpp di ko dégg mbokk yi boobu moo doon ñetteel bi ñeenteel bi mooy istihlaalul xamr wa tasmiyatuha gayri ismiha daganal sàngara ba pare tuddee ko beneen yeneen tur yi dul isti ko islaam joxoon waaw moo tax alaaji Malik ba gaa yi daganalee sàngara tuddee ko yeneen tur mu ne innama alxamru asnaafun kulluha xaraamun maa bayna rikileesin wa sampaañin wa béerin mu ne sàngara yëpp araam sàngara benn baaxu ci nee na yëpp araam moo xam sampaay na xoolal tey gars yi dañ koy tuddee al mashrubaat ar ruubi ay naan yu dundal yaram def ko ci bouteille yu rafet waa ji nga xam ne moo koy sotti sax bu koy sotti dañ koy jàngal naka la koy sottee tey laxas ci loxo bi benn këyit bu weex jàppe ko oh subhanallah ah mbokk yi xoolal musiba boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ijtanibul xamra fa innaha umul xabaais mooy tandiku leen sàngara ndax mooy ndeyu ñaaw teef yi xoolal fii tey ñun dañuy naan sàngara comme ndox quatre-vingt-quinze pour cent ñaata ah musulman ñoo fi nekk su fekkee ne usine bi mu ngi jar sàngara bi ñen ñoo koy naan jullit yi jullit yi ko naan ba mu jeex tàkk te nag di xaar usine bi reproduire ñu naanat da ngay gis jullit bi dugg ci baar ne na ma sut ñu tegal a kees gi ba mu sut ko mu naan ko ci guddi gi te nag di ko xeet xoola musiba boobu xoola musiba boobu mbokk yi yonent bi nee na moytu leen sàngara ndax mooy caabi ñaaw téef yi caabi ñaaw téef yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne naan kat sàngara moog jaamu ko turam ñooy gis na nit bu daanee sàngara am na juróom-ñaari jikko jikko rab yi am na ci juróom-ñaar am na jikkoy ginaar jikkoy mbaam jikkoy bëy ah jikkoy xaj sàngara am na am nga juróom-ñaari jikko rab yi xam ngeen lan mooy jikkoy mbaam buñ la doon dóor fii ba suba doo jóge ci place boobu ba ngay taxaw rek damm laa mi di yóbbu di wax rek doo dem mu loo ko dóor mu jël boo doon yat di nga ko dóor ba mu damm du dem moom mooy jikkoy mbaam jikkoy gaynde mooy day ñëwee day am fit nankatu sàngara bu dee yoon a jinne du jommi jinne day naaw def ay saxaar ba sonn mu ne ko da ngay sonn rek du jommi mu day am fit day ñëwee di koy xaj bi mooy place lu mu sell sell ñeme na cee saw puisque nag amatul xel ji koy xaj ji koy ginaar mooy basang moom mun ngaa dugg jàkk léegi dem fa àll ba noonam nekk ci mën naa dugg ci jàkk dem fa kabine moo duus la yemale ji koy golo mooy mbedd mu mu jaar day xumb fu mu jaar day xumb lu tax du bàyyi nit ñi nelaw ñépp moo leen di yee golo gu rëccoon fii ngeen xam moo tax gis nga sàngara bon soo naanee rek da ngay dajale ay jikko rab sooy naan rek dajale ay jikko rab loola yonent nee na mooy caabi lépp lu bon kon ci li def boora mooy mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñetti yàlla du leen yërëm salaasatun faqar xaramallahu alayhi janna ñetti nit yàlla du leen yërëm mbokk yi mbaa amul fii ci ñun ku bokk ci ñett yooyu nañ déglu ñett yi bu fekkente ne am na ci kenn ku am ci benn jikko ci ñett ñi di ñëw wóoroo nga tuub balaa ngay dajeeg yàlla ñetti nit yàlla araamal na ci ñoom aljanna kan moo doon wax wax ji ci yàlla yónni ci ñun ki nga xam ne yàlla mu ne maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha du wax lu ko neex lu mu wax rek yàlla ko wax la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne mudminul xamru naankatu sàngara yàlla du ko yërëm du ko dugal aljanna wa aqul li waaliday ak ku dënge sa ñaari way ji ku am papa ak yaay te doo seddal seen xol mukk mukk jamais ñetteel bi nag mooy dayus kookoo bëri day mbokk yi xam ngeen kan mooy dayus alladi yuqirru suu fi ahlihi ki nga borom kër gi nga xamante ne sa waa kër dañuy def lu bon nga naan ñu ay xale la ne ñu màggee mu dañ yonent bi nee na yow yàlla araamal na ci yow aljanna loolu bëri na tey de ay waaye fa bëri ay borom kër yi seen doom yi di sol biso di sol minu di sol bodi ah di fekki duñ ci wax dara kaset bu sax bu génnee ñoo koy njëkk a jënd yonent bi nee na day yuus du dugg aljanna bu ngeen jógee ngeen xadis bi ngeen dem ci nisaa yi ak ahmad ngeen xool xadis bi wér na wala wér ñoom ñaar ñoo ko solo mu ngi seen musnad am na lu ñuy xaar de yàlla dafa woote ci alquran yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran ee yéen ñi gëm yàlla ki woote kan la kan moo woote ku woote ñan lay woo ñi gëm lu ngeen di doo mu ne musal leen seen bopp safara musal seen njaboot yàlla ne ki perte dëgg-dëgg qul innal xaasirin alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyaama ki perte dëgg-dëgg mooy ki perte boppam perte njabootam ñoom ñëpp yawmal qiyaama loolu bëri na de tey ay dayus ñoo bëri tey soo demee ci beneen bi yaay yonent bi ne alladi yarda alxubusa fi ahlihi koo xam ne dafa d'accord waa këram di def lu bon mu toog di leen xool da ngay dégg Sénégal ñu ne adduna kanaara lañ nekk démb yaay papa ñooy nekk ci kanam ñu ne tey nag njaboot ngay nekk ci kanam ñu nekk ci ginnaaw aywa ndeysaan ñu ne neex adduna adduna ñu ne neex adduna ñu ne de mbay waa gannaaw juróomeel istihlaalul maasif wal xarir wal xinaa daganal yonent bi neen bu ñu demee baa dina bi waayu jeex li leen koy won mooy leen won ne yomal xiyam jege si na daganal gi ngeen di daganal musique ak instrument ak choix ak ay woy tahrirul maazif maazif mooy instrument wal xariib mooy choix wa xina mooy ay woy yonent bi neen daganal gi ngeen koy daganal mooy wane ne yomal xiyam jege si na loolu dagan na ko rek wala dagan na ko dé dan ne dañuy waa ko leneen ñu ci te musique dafa araam ci alquran araam ci sunna araam ci ijma sunna alquran mooy téere yàlla bi ay aaya da ciy ñëw yàlla araamal musique ba léegi Sénégal ñu naan est-ce que dagan na wala daganul ñun foofu lañ toll aaya bi njëkk araamal musique aaya baa ngi nii wa min annaas man yastari lahwa alxadis li yudilla an sabilillahi bi gayri ilm wa yattaxizuha huzwan ulaika lahum adabun muhin aaya bi moo njëkk araamal musique borom xam-xam yi ñu ne fal muraadu bi lahwil xadis wal ginaa li yàlla bëgg a wax fii ci laxul hadis mu ne mooy ay way ku wax wax jooju abdullah ibnu mas'ud abdullah ibnu abbas bahrul umma wa tarjamaanul quran abdallah ibnu abu um- abdullah ibnu omar radiallahu anhum wa ardahu ñetti ñii ñetti abdallah yi abdallah ibnu mas'ud abdallah ibnu mas'ud xam ngeen mooy kan mooy ki yonent bi doon wax ñaari yeelam yi ñoo gën a dë- dëgër ci yàlla jabalu uut waa ji doon wax loolu ki yonent bi waxoon loolu ne ñaari yeelam yi ngeen di xeeb moo gën a dëgër jabalu uhud ci yàlla kookoo wax wax diine yàlla aaya bi musique la ci wax ñaareel bi mooy kan mooy baxrul umma ki raw ci xeet yi ki yonent bi teewoon fëgg bopp bi fëgg dënn bi ne allahumma faqihhu fi diin kookoo wax wax ji ñun ñu toog di werante naan dagan na wala daganaw ñeneen bi abdullah ibn omar fala waa ji mere na doomam ba mu dee waxutul ak moom ci benn xadis bu ne yonent nee na bu leen tere seen soxna yi ñu dem jàkk doomam ne man sama soxna du dem jàkk ba doom ji dee mu ne ko mënaan la yonent bi ne nga naan ma man ba doom ji dee waxutul ak moom ndax nu mu dëgëri woon ci sunna ñett ñi ñooñu firil li aaya bi ne aaya bi li ci yàlla wax mooy musique ñun waa Sénégal ñiy gam-gam li da dagan na wala dagan na gut mbokk yi beneen aaya bi daganal bi xaraamal musique mi ngi nii qul jaa al haq wa zahaqa al baatil inna al baatil kaane zahuqa borom xam-xam yi ñu ne dëgg lañ war a topp wala du dëgg lañ war a topp laaj bu may laaj la dëgg lañ war a topp wala waruñoo topp dëgg lan moo nekk ginnaaw dëgg fa maza baada al xaq illa lu nekk lan wala nekk ginnaaw dëgg lu dul caaxaan te yonent bi lépp lu mu indi rek dëgg la jëriñ ci nekk islam lépp lu mu tere rek musiba ci nekk musique lan moo ci nekk jàmm ci nekk lu tax xalif général bi buy ñëw ci dëkk bi kenn du ko teeroo musique tontu leen lu tax ilimaan bi buy ñëw ci dëkk bi kenn du ko teeroo musique lu tax ku am gan ku tedd doo ko teeroo musique lu tax ku dee kenn du ko gungee kaset yi mu woyoon kon gëmu leen ko xam ngeen ne kon daganut da ngeen di fontu kon xam ngeen ne daganut da ngeen di fontu caaxaane fi nekk rek waa ji fi dàqa woy bu deewoon nga indi benn kasar rek jàpp FM ñu këriñ këriñ tuuti na eh subhanallah mbokk yi wala su tey dafa tey daluñu ko. ah tey dalu leen ko. dalu leen ko tey. teelu leen dal. ah koo gis bis boobu ñëpp ñëpp a ñuy ñàngal kanam pour yàlla yërëm da ngeen nañ leen ñëw léegi incha allah ñu buñ yàkkamti. boobu mooy ñaareel aaya. ñeenteel aaya bi yàlla araamal musique. walladina laa yashhaduuna zuur. wa ida marru bi lagwi marru kiraaman. wa min gayri shakk. anna al ginaa lagwun wa zuur. yàlla mu ne ñi nga xam ne duñu seede caaxaan suñu rombee ay fo dañuy dem dañuy romb nekk ñu tedd xoolal yàlla day tagg jullit ñi ne walladina laa yashhaduuna zuur ñi nga xam ne duñu fekke caaxaan ah duñu fekke caaxaan ñaata ci ñun ñooy dégg dara rek xoolal waxuma la ñun duñu fekke waaye dañuy jënd dañuy jënd ticket dañuy jënd ticket l'islam lépp luñ koy organiser amul jënd ticket waaye caaxaan ak seytaane lépp lu ñu leen di organiser da ngay jënd tikki collègue dara doo jënd tikki ah am na jënd tikki wala amul sim nag am na gis nga dem làmb ja nag am na jënd tikki wala amul jënd tikki waaye conférence làmb am na jënd tikki lu tax du fees gis nga caaxaan lañ jëm boobu benn aaya la kon su ko defee ñu tëb aaya yi ndax nee nañ ma 4 minutes moo des ñu ñëw ci xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi nee na yàlla daf ma nekk yërmande pour xeet bi yàlla yónni na ma pour ma jëlee ci instrument ak musique ak mbiru cebbe yi xadis boobu ahmad a ko solo beneen xadis mu ne iyaakum wal istimaai maazif wal ghina fa innahuma yunbitaani nifaaq fi l qalb kama yunbitul ma al baqla yonent bi nee na maa ngi leen di moy te ndikuloo déglu musique ñu nekk lu tax mu ne musique day saxal ak naafiq ci xol déglukatu musique boo gis rek naafiq la soo ko ne yàlla nee na il faut mu teg ci kàddu munoo fekk déglukatu musique nga ni ko yàlla nee na te tegu ci kàddu foog mu ne la mais vraiment yéen gis nga commencé na daa fekk ngoog daa fekk ngoog boo ne ko julli jot na sax nga dégg lool wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraawuna naas te fi ñu demee ci nit ñi nag macha allah mbokk mi li ñu doon wax dëgg la dëgg la seytaan yi dañoo bëri doole ah gis nga daa fekk yaa ngoog mbokk yi ñu ñëw ci suñu ngir yi fi ñuy jeexale Sénégal nee nañ dañoo gëm imam Malik ci ngirum Malik lañ nekk soo tourné ci dëkk bi Malik Malik Malik Malik Malik moom bu jàppee waa Sénégal yow mal xiyam du baax Malik ak sëñ Touba ñoom ñooy ñooy yóbbu waa Sénégal jahannama bañ jeex ñoom caag ñun ñëpp ndax dañoo nekk ci ay caaxaan ba pare di di sosal ñu baax ñun naan ñoon ñoo leen ko sant ñoon ñoo leen ko sant ñaar ñi moom waa Sénégal war nañ leen baalu wax fu ñu julli war nañ leen ñaanal ndax li ñuy teg seen kaw mazhab bi ñu ciy njëkk a indi mooy mazhabu Abu Hanifa rahimahullah biñ ko dañ ko laaj am na fi ku gëm mazhabu Abu Abu Hanifa dañ fii ñu toog du ñàkk ku fi nekk ngirum Abu Hanifa na nga déglu sa imaam sa njiitu mazhab lan la wax ci musique moom dafa ne simaawul agaani fiskun wa talazzuz biha kufr déglu musique kàccoor moo koy def ku ciy bànneexu nag yéeféer nga imaam Ahmed moom loolu la wax ñu ñëw ci ñaareel muy imaam Malik imaamu daaril hijri laa yufta wal maliku fil madin madrasatul hijaz imaam Malik dafa bëggoon yonent bi ba buy nekkee ci biir dëkk bi di sol daal su daan jàngale xadis yonent bi day dem simmeeku sangu solaat yeneen yére kaalaw ñëw toog daan ne ku jàngale xadis yonent bi da nga war a set day wax ba ci yàgg daal di jël loxoom ndeyjoor bi daal di teg ci bàmmul bàmmeelu yonent bi daan ne kullul kalaami yuxas wa yurad illa saahibu haza al qabr daan ne waxu ku nekk dina waxu ku nekk dinañ ci dinañ ko gam-gamlee ba mu des waxu Seydina Muhammad kooku lu mu wax rek assam u wacca imam Malik daawul war fas biir madinatul munawwar imam Makka imam imam Malik toog na fanweeri at demul jàkk yonent bi ñu ne ko lu jàkk mu ne dama am salas te jàkk yonent bi dafa set su ma wóoroon ne tey jii dinaa fi yendu ci àdduna du ma leen wax sama ngànt mooy keroog bañ ko dóoree mu jëlee ci feebar mënatul xabdu mënatul mënatul jiite ndax moo doon jiite jàkk ji bu leen fàtte xam ngeen histoire imam Malik imam Malik dañ ko fekk ci jàkk ji mu toog ñu ne ko imam Malik lan nga xam ci musique mu ne laa yasmau indana illa al fusaar kenn du ko déglu ci ñun lu dul kàccoor imam Malik wax wax ji ba pare daal di daanu xëm ñu xëpp ko ndox yeenoo ko ci jàkk ji yóbbu ko kër ga di ko xëpp ndox di ko bés ba mu ximmali ko ñu ne Malik loo ci wax mu ne xal yasmauhu muslim ndax jullit dina ko dégg Malik bu ñoo doon bu fekkoon Sénégal lu muy wax mbokk yi Malick bu ñaatoon Sénégal tey lu mu fi fekk imam Malick nee na bu la nit yoralee bor nga koy fayaku ji ñëw ba buntu këram dégg mu teg musique bul dugg mu ne boo duggoo am bakkaar te xaalis yoru ko dellul ba beneen yoon nga ñëw doo koo faye imam Malick moo wax ji imam Malick moo wax ji mbokk yi ñu ñëw ci ñetteelu njiit Muhammad ibnu Idris ash-Shafi'i rahimahullah mu ne algina lahul makruh yushbihul batil musique caaxaan la ak foo man yéemu ma bu ma kenn bu ma ko kenn sax laaj dafa jànn ñi ko laaj bu ma ko kenn laaj loolu la leen wax talu ma yooyu man am na yeneen yu ma taal yéen yéen a ko tey borom xam-xam yi mu des kenn ci mujje muy imaamu ahmad imaamu ahlu sunna wal jamaa ki nga xam ne ci kaso la dee imaamu ahmad imaamu ahlu sunna wal jamaa ñu laaj ko musique loo ci xam mu ne almi algina yumbitu nifaax fil qalb fala yujibu nii mu ne day saxal ak naa fekk ci xol man yéemu ma imaam ahmad lii la wax moom ñun tey dañ leen xool suñu bopp borom xam-xam yi ñu ne képp koo xamante ne da nga dee ñu dem ci say bagage ñu xool daa ci fekk benn instrument musique borom xam-xam yi nee na yow dogalul ñu jullee la lu tax ñu ne yàlla da lay fulli ci sa biir bàmmeel ñu ne lu tax waa ji dagal te jullee ñu ne parce que boo ko jullee danañ ko fulli boo ko jullee lu dara du fulli kon jarul te jullee xoolal ñun tey fi ñu toll ci lool dégg naa boykat bu dee kaw ko jëm dem di liit malakal moom fekk ko kaw tribune liit ko dañ ko jullee nañ ko pourtant de fi ngeen fekk loolu mbokk mu ngoog mbir yaa ngoog de mbir yaa ngoog fii day gis ku nekk caaxaan ba dee yaar ñëw daal lay jullee de macha allah mu ngi koy bindee asamaan si xiinoon wala toowoon na kon mooy mbiri kon maa ngi jox mbokk mi jazakumullah xeer
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki gore ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala julli seenunta muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëw fi tey di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñëw bi ñu fi ñëw yal na nekk xéewal pour mboolem jullit rawatina nag jullit yi nekk ci biir gore mbokk yi yaakaar naa ne ndaw yu mel nii bu nekkoon ne bëri woon na ci réew yi yaakaar naa ne lislaam dina doon tasaaroo waaye nag nañu xam ne noonu yàlla yi nga xamante ne ñooy jéem a jóg pour fay làmp bi yàlla subhaana taala xës xuyét xës a taal nañu dem noppali te xam ne lislaam moom jantam féq na te kenn dootu ko fayati incha allah
ndax am na lu borom bi subhaanahu wa taala waxoon ne woon na gaa ñooñu seen alal yooyu nga xamante ne moom la ñuy jël di ko dugal pour yàq lislaam ñuy dugg di génn nee na din ko dugal foofa ndax foofu rek mooy place am waaye nag du tee nag la nga xamante ne mooy seen i pexe day yàqu te des leen gañe te bu leen gañee nag fu ñu jëm safara yàlla subhaanahu wa taala waxoon na ko alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum li yasuddu الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله سبحانه وتعالى waxoon na lii yàlla waxoon na jullit ñi ne yow jullit bi bul xool gaañeg seen alal yi bu leen xooleeg seen i merko wala nga xooleeg seen i pajoro wala nga xooleeg seen i roplaan yuy naaw wala ngeen di xooleeg seen i château mu ne lii lépp alal la joo xam ne subhanahu wa taala dama leen koo jox ngir lan ngir alal ki leen ci alal yooya mu ne wala tucjibka amwaaluhum wala awlaaduhum innama yuridu allahu li yuadibahum biha fi dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun allah subhana taala waxoon na aay mel nii yàlla wanati ne yéefar yi ci boppam ñoom li ñuy góorgóorlu góorgóorlu lépp lu ñoo rëcc yàlla subhana taala allah subhana taala mu ne wala yaxsabanna alladina kafaru sabaqu innahum la yucjizun ñoom subhana wa taala nee na ñoom muy ñu maa rëcc mukk kon nañu xam ne ndem bu ñu ñoree ci yàlla subhaanahu wa taala nañu taxaw ci li neex borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi sama doomu ndey am na lu mu wane ci mandarga yi nga xamante ne mooy mandarga yi bis penc mandarga yooyu la muy wane moom mooy bu lii dikkee la cay tegu moom mooy lii kon yàlla la mu waxoon ata amrullah fala tastaajilu mbiram yàlla dikk na jarul di ngeen ko yàkkamti mbiram yàlla dikk na yéen waa Sénégal lu ngeen di yàkkamteeti mbokk yi yaakaar naa ne bu sabab bi xësee gaare amatul kenn koo xam ne danga toog fi di wax naan bi maanaam man dama tardé waaw comme mbokk yi mbiram yàlla dikk na kon képp ku tardé yow yaa nar a tardé sa bopp ba mbiram yàlla moom dikk na ba pare jarul lu ñuy yàkkamti mbiram yàlla mooy lan moom mooy ñu xëy benn bés rek jant bi waroon fenke fii waaye mu daal di fenke fii mu daal di fenke fii mbokk yi loolu musiba la nañu moytoo moytu bokk na ci mandarga yi mbokk mi waroon wax xëy na waxtu wu xat moo tax waxu ko moom mooy dem ba ay daaba di jóg di wax ak doomu aadama yi leen di wan ne li ngeen nekke baaxul war ngeen a dëpp gën wàcc yàlla balaa yàlla alak mbokk yi ñaata yoon la yàlla subhanahu wa taala di waxu mel noonu seet leen fii 93 xaw ma 92 déggoo leen fii ci Ouganda benn béy bu doon wax déggoo leen ko foon béy bu doon wax lu mu waxoon yéen waa Ouganda li ngeen di jéem a faj moo leen ko faj li nga xamante ne mooy sida bii ngeen di jéem a faj moo leen koo faj li koy faj mooy ngeen delluwaat yàlla tuub su ngeen ko deful da ngeen di alku mbokk yi information yi mel noonu keroog bi nga xamante ne mbokk yaa ngi koy waxantoo di ko waxantoo man ba ma dégg ko dama leen ne bu nekkee ne la ñu wax am na ne béy wax na bu nekkee ne la ñu wax am na yàlla waxoon na lu meloon noonu ci alquran ci suuratu nam li ku ca dem ca aaya juróom-ñett fukk baak ñaar da nga fekk ci subhaanahu wa taala di wax naan حتى إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم من الأرض دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سبحانه وتعالى ñëw di leen di wan li nga xamante ne moom mooy katt na mbokk yi nañu xam ne nit amul dara ci kaw suuf lu dul topp boroomam amul dara ci kaw suuf lu dul topp boroomam yàlla subhanahu wa taala wax na ne ak loo mën a nekk ci kaw suuf bés na ñëw rek nga daal di génn àdduna mbokk yi kullu nafsin zaiqatul mawt bépp bakkan bu ñam dund day daal di ñam dee bépp bakkan bu ñam dund day daal di ñam dee mbokk yi mbokk yi xoolal yow doomu aadama yow mi nga xamante ne sa qiima sa njëriñ sa avantage ci aduna wala sa njëriñ ci aduna mooy nga jaamu sa borom soo ko jaamoo am ci moom ndam boo ko jaamuwul alku mbokk yi nga taxaw ci kaw suuf di dukkat di daw xumbaloo xumbal simboo simb baaloo baal kole dara woo kole dara diggante hôtel ak lu kenn xamul naan façon naan gu jóg nga naan lu xew lu jóg nga daal di koy def dem ba sax góor sax nangoo soppi boppam def boppam jigéen dem ba jigéen sax nangoo soppi boppam bëgg a def boppam góor dem ba ay góor di seeg seen i moroomi góor dem ba ay jigéen di seeg seen i moroomi jigéen lii lépp am na ci àdduna kon àddunaa ngi bu aji tukki mbokk yi lii li muy firndeel mooy ñun ñëpp nañu xalaat ñun ñëpp nañu imagine bés dina ñëw kenn ku nekk tëdd ci lalu dee ndax li ñu xam moom mooy nit ki balaa muy dee dafay feebar waaye nag dee ak feebar jotewul dara ndax bëri na ku feebar fekk teewul waaye bëri na koo xamante ne dee na fekk jaarul ci feebar moom la waxkat yi wax wa kam min صحيحنا مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر ñaata yoon ngay gis koo xamante ne dafa wér ci ndëm dara dalu ko mu xëy rek na la dee na waaye ñaata yoon ngay gis koo xam dafa woppoon ba ñëpp di ko dem di seeti mu jóg di doxat ci ko suuf waaye ndekete yow ki mën mooy Allah ndekete woo borom kàttan mooy Allah ndekete woon buur mooy Allah ndekete dëgg mooy Allah subhanahu wa taala mbokk yi nit ki nekk ci sukuraat tëdd ci lalu deeyam ay mbokkam tiim ko mu mu ñu tiim ko mi ngi nekk foo xamante ne ci place boo xamante ne moom am na ñu muy gisanteel te waa këram gisante gu nag noonu ndax yàlla ne nag fa kachafna anka gitaaka fa basaruka al yawma hadid man yàlla wulli naa sa kiiraay sa digganteeg ñooña tey sa bët yi dafay wér cem den da ngay gis gaa yooyu ay malaaka lay gisanteel ay malaaka lay gisanteel mbokk yi wër ko gis waa ji ni muy naan di ñëppee mi ngi sonn lool ndax xam ngeen ni sukuraat métti na lool xatta Muhammad sukuraat a métti woon na yonent bi dafa sukuraat nekk sukuraat sukuraat bi métti lool doomam di ñëw tiim ko naan waa karbaax ala abata way maa ngi jooy sama naqaru baay mu naan ko laa karba ala abika baada yow sa baay dootul amati naqar ginnaaw tey yonent bi di yëkkati sër bi mu muuroo woon mu koy muur kanam ngeen say mu muri kanam gi naan laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakaraat mu naan amul kenn ku war a jaamu ci dëgg nekk dee métti na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dee métti na lool mbokk yi mbokk yi si jamono boobu waa gi tëdd foofu mbokk yi kenn ku nekk ne kaa leen ngi seeti médecin sàngam ndax médecin boobu de ku mu mas a pikiir moom da ngay daal di jóg ñu ne déedéet kaa leen dem ci sëriñ tariyaax sàngam am na saafara soo xam wala am na sunguf soo xam wala am na laar boo xamante ne bu la ko xësee fëgg lépp loo jàppoon da ngay daal di jóg ma ne xanaa da ngaa déggul waxu waxkat ba fa muy wax naan wa ida almaniyatu anshabat adfaaraha alqayta kulla tamimatin la tanfaau day nekk na loo xamante ne bu la xësee ni samp ay weyam lépp loo takkoon da nga koy daal di fàtte lépp loo yaakaaroon dul yàlla keroog tas mbokk yi si jamono boobu boo yëkkatee loxo loxo yi na ba sax nga yëkkati tànk tànk na ba sax allah subhanahu wa taala wal daffati saaqu bi saaq tànk yi daal di taqaloo mbokk yi foofu ay waa këram commencé di lan di miiras waa ji di saisir waa ji te génnagul aduna amoon na montoram bu cher ñu ne tikki leen montre bi ndax si di bàyyeeku tekki leen montre bi ndax si di ci bàyyeeku soxla wuñu yërmande ci moom de dañuy bañ montre bi mu yàq ko ñu ne tikki leen montre bi ci kaw lalu lakk la tëddoon wala lalu bois rouge wala lal bu cher ñu ne wàcce leen ko lal da ngeen tëral ko ci suuf ñoo wutal ko ndës ndax suuf see ëpp yërmande suuf ëppul yërmande mais dañuy bañ mu yàq lal bi dafa soloon ay ndasin wala dafa soloon ay sakaam ak ay suwa donte ko xaraam na ci góor mbokk yi ñu ne summi leen yére yi mu sol ngeen solol ko benn fuux yow wala ngeen solol ko benn faaru mbaam ngir bi maanaa yaram bi ngelaw lu kii mun a nu kii féex mun a ñëw ci moom li la ñuy wax mbokk yi soxla wuñ ci loolu yére yu cher yi la ñuy bañ mu yàqu ko nii lay nekkee foofu nekkee foofu gars yi di jëw di jëw wàcce ko ci suuf mu sonn lool yàlla nag yebal ñeenti malaaka bu nekkee ne moom waa ji ku baax la woon dina yebal ci moom ñeenti malaaka bu nekkee ku bon la woon dina yebal ci moom ñeenti malaaka bu nekkee ku baax la woon malaaka yi ñëw ci moom dañuy ñëw di ko sargal di ko wan ne léegi nga jot ak sa borom subhanahu wa taala léegi nga egg sa borom mu gërëm su nekkee ku bon la woon dañuy ñëw di ko mugal pour lan mu génn ci àdduna dem fekki borom borom duma ko ku baax ki bu malaaka yi ñëwee ci moom lu ñu koy njëkk a wax kii njëkk a ñëw ci moom def naa ko assalaamu alayka ya abdallah طفت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى لك خطوه تخطوها بعد jaamu yàlla bi la yàlla na jàmm nekk si yow wër naa asamaan wër naa suuf wër naa penku wër naa sow mais gisatuma fenn fa mun a jéegoo ci wenn jéego tànkee daal dinay gàmm yàlla ne wal tafati saaqu bi saaq tànkee daal dinay jaxasoo soo ko yëkkati woon tamit dafay daal di direeku ay tànkam day direeku waaye daatul dox ci malaaka ñaareel bi ñëw ne ko assalaamu aleyka ya abdallah طفت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى لك شربة ماء تشربها بعد ورنا أثمانك سوف ورنا بنكوك سو جسم فن فومنتي جالة بن بوخ نخ suñ ko xoloon géej yi wala ñu xol ko dexi léppay daal di jeex waaye lépp lay génnewaat mbokk yi malaaka ma li ngeen ne ko asalaamu aleyka ya abdallah tuftu laka mashariqa al ardi wa magharibaha falam ara laka luqmatan taakuluha baad wër naa asamaan wër naa suuf wër naa penk wër naa sow gisatuma fenn fa munu dee dugal si gémmiñ gi benn tib mbokk yi kooku soo ko róoloon adduna yi sunguf lépp lay gàllaat mu génn malaaka mi mujj ñëw mooy ànd ak malakul mawti kooku bu ñëwee dafa ko assalaamu aleyka ya abdallah طفت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى لك نفسة تتنفس بها بعد yàlla jàmm nekk si yow war naa asamaan ak suuf war naa penkoog sow mais gisuma fenn foo mën a tee noyyi benn noyyi rek ñu daal di rocc ruux googu yàlla ne wa jaat sakratul mawti bil xaq dalika ma kunta minhu taxiir sakratu dee ngoog ba nga doon moytu di ko daw li ngi ni dikk na ci yow lii dañuy roccee sa ruux lii dañuy noccee sa ruux yow jullit bi yàlla ne wan naa shitaati nashta maa ngi waat ci malaaka yi nocc ci ruuxu jullit bi ak nocc waaye bu nekk ab saay-saay la woon malaaka yi dañuy tiim di nappatu ruu gi bu ñu nappatoo fii ruu ga daal di daw ñu nappatu fële ñu ruu ga daal di daw dañuy yore lu mel ni ay flèche bu boobaa dañuy taw ba gën ñu càpp loolu flèche yooyu ci yeel yi bi maanaam ruu ga ñu dab ruu gi xëcc ko bipp bu ñu ko bippee mu daal di ñëw ñëw ñëw ba ci nëq bi ñu teg tuuti na xaaral mu noppalu pour mun a sonn pour mu gën a ñam métit ñu indiwaat ko ba ci dënn bi ñu ne xaaral mu gën a sonn ñu daal di koy bipp nag foofu lañ koy bipp yàlla ne wan naaziaati nazqa garqa maa ngi waat ci malaaka yi ñoddi di rocci ruuxu yéefar bi ak ñotti gis ngeen yonent bi sasam dañuy misaal loolu dafa ne est-ce que gis ngeen flèche bu ñu dóor ci biir saaku coton soo koy gën lu muy def day buy coton bi noonu la ñuy génne ruuxu yéefar bi muy buy waale li nga xamante moom mooy yaram bi mbokk yi kon ñu xam ne dee metti na nañu xam ne dee metti na nañu xam ne dee metti na te amul kenn si ñun lu dana fa dana fa jaar al mawtu baabun wa kullu nnaasi daaxilu dee buntu la ñëpp a ciy jaar ñëpp a ciy jaar te benn buntu la ñëpp a ciy jaar mbokk yi ci biir loolu nit ki noonu lay génne aduna bu génnee aduna mbokk yi bu nekkee ab jullit la woon ñu daal di taxañ ruuxam gu sell googu def ci li nga xam te ay gët daal di ko yóbbu ca kaw fu mu romb ñu koy ñaanal naan kii de ku baax la woon kii de ku tabe la woon ñu di ko ñaanal yërmande waaye bu nekk ku bon la woon ay torchon yu ñu jëlee ci safara la ñuy laxasee ruuxam googu fu mu jaar yuy mool ruu googu di xas ruu googu di ko ñaan yàlla ñaan yàlla ak ñaanal yàlla bokkul dañ koy ñaan yàlla yal na ko yàlla alak yal na ko yàlla toroxal fii lañ koy wax mbokk yi nii la dee di ñëwee ci nit nii la dee di ñëwee ci nit waa ji nga xamante moo gën a àdduna li ñuy def daal dina gën a leen ko kër gi moom mu mën këram moo gënoon otoom moo tabaxoon këram moo amoon ay soxnaam moo amoon ay doomam dina gën a leen ko kër gi fu ñu ko jëmee noor bu ba léegi ana turam wa moo xam président de la république woon moo xam ministre la woon moo xam député la woon moo xam maire la woon moo xam chef de quartier la woon moo xam iliman la woon moo xam oustaz la woon moo xam xalif général la woon moo xam lu mu munti doon aw turam da koy daal di réer tur woowu dañ koy daal di fàtte la nga xamante ne moom la ñuy wax mooy ana néew bi turam yëpp réer na léegi wan tur la am néew ana néew bi ana néew bi ku expert li muy laaj mooy ana néew bi ana néew bi lu tax ko tuddee néew mooy dafa néewle ci xam-xam dafa néewle ci kattan dafa néewle ci doole dafa néewle ci pexe dafa néewle ci lépp moo tax ñu tuddee ko néew bi mbokk yi ñu yenn waa ji yóbbu ko morgue ba bu ñu egsee morgue ba daal di jël ay doñ di glace teg ci kaw wala ñu bàyyi ko ci biir morgue ba mel ni ki frigo bu ñu taal ana kan ci ñun tey moo ñu may ta dugg ci biir frigo bu ñu taal ne dafay fena dafay fena wala dañ koy dafay yendu ana kan ci ñun moo ko ñu ne waaye néew bi fu mu jaar fanaan foofu wala fu mu jaar yendu foofu wala fu mu jaar am fa ay minute mbokk yi ci biir loolu gaa yi ne kaay la ñu seeti sangkat ñu seeti ay morceau percal daal di ñëw gaa yaa ngay xotti percal ba di ko ñawal ay yére ñële ñu nga toog di maanaam di xaar sangkat yaa ngi koy sang fu bët ñemul woon a xool keroog bët dina ko xool fu loxo ñemul woon a laal loxo dina ko laal te mooy ki doon bàpp ci mbedd yi di wax naan man la man la man la man la ndekete yow dee bëri na làkkat buy wax dee mais xamul luy dee ndekete ñi xam dee dëgg mooy xaalpulaar yi xaalpulaar yi tëb tuddee dee lan nu ko tuddee maay dee maay dee mooy dee maay dee mooy lan maay dee mooy lan mooy di maanaa suñu nee kaari maa yi kaari maa yi diw dee na mooy maa o yiitu ko wat noo koon maanaa li mu defoon lépp dina ko gisaat li yuraw ahmaalahum li yuraw ahmaalahum la ñu jëfoon lépp def seen koy wanaan kaarimaa yi kaarimaa yi maa o yiitu koo war na ko diw dee na mooy lépp lu mu defoon dina ko gisal mbokk yi gaa yaa ngi koy sang ah fa mu taxaw du ne bàyyi leen du ne bu leen laal du leen def leen ma ndànk gaa ya sang ko saañ ay paxam yeew ko sang ko foton ko ba mu dëgër ñu daal di koy yenu ne yàlla nag gis nga kii sab jaam la woon mi ngi nii tey dañ koy indi fekk ñu ngi koy yeew ñu yenu ko jëm ak moom fan jëm ak moom jàkk ja yàlla na fekk nag jullit bu daan dem jàkk la ak bëri tey jullit dul dem jàkk la bu nekkee jullit bu daan dem jàkk suñ ko yóbboo jàkk ja kon du rus su deewee ñu yóbbu ko jàkk ja du rus waaye bu nekkee jullit boo xam dana romb jàkk yi nii soo ne mën a eh waaye suñ ne asalaatu xayru min déedéet al amalu xayru min asalaat liggéey moo gën julli suñ ne ko asalaatu xayru min mooy annawmu xayru min asalaat nelaw ba kay moo gën dee moo gën moo gën julli ah bu nekkee jullit mel nii la moom buñ ko yóbboo si jàkka ja te fooy jub jàkka ji rek jàkka ji ne ko ulaika ma kaana lahum an yadxuluha illa xaaifiin ñii de lii moo tax ñu mën fa dugg tey mooy ñu yeew leen ba ñu ne ngob bi jiital leen indi leen fii lii rek de moom mën a tax ñu ñëw fi tey waaye mos ñu fa ñëw yàlla yàlla boo yërëm yàlla yàlla boo yërëm kii yàlla bu ko ay malaaka yërmane aw yàlla bu ajana nekk këram li na ko jàkk ji di ñaanal bu nekkee ne nag ku daan dem jàkka la bu nekkee ka daan julli la bu nekkee ku doon baax ci wàllu yàlla subhanahu wa taala bu boobaa bu jubloo jàkka ji jàkk ji dafay kontaan bëgg ne yow yàlla yërëmal kii yow yàlla jéggalal kii kii de sama waay la woon kii de xàmme woon naa ko ci samay nit lii lay jàkk ji wax mbokk yi ñu indi ko tëral si jàkka ji ilimaan ñu ne ilimaan ilimaan daal di ñëw taxaw ilimaan ilimaan daal di ñëw taxaw tey kenn ku nekk tey dafay jël ilimaan yi jàkkee ilimaan yi jumaa yi féet leen ginnaaw ne waaw ku jàngul tubaab moom mënoo fee tekk dara ci réew mel ki réewum Sénégal te boo dee ilimaan ya lay juddee sooy juddee ilimaan ya lay tudd waaw kon ñi la gane woon ña ña la ña la ña la gàttanu woon ba nga ñëwee ci àdduna gunge la ba ngay génn àdduna mbokk yi ñooñu nga war a fonk ñooñu nga war a fonk ilimaan yi ku leen xeeb torox ku leen xeeb torox ah mbokk yi foofu si saa si ñu indi ko tëral ne ilimaan kaay yaa ci des kaay nag nga ñaanal ñu nga ñaanal ko ilimaan daal di ñëw taxaw daal di xool waa ji xool mbooloo mi daal ne leen nag bu nekkee góor la nañ ko ñaanal ñaan gi bu nekkee jigéen la nañ ko ñaanal ñaan gi ku ko mënul na nga ne allahuma igfir lahu warhamhu wala allahuma igfir laha warhamha la lay wax léegi nag ilimaan la ngay ñaan li muy wax ilimaan la muy wax waa ji keroog ak nit ña fa taxaw ña jàng ña xam nañuy ñaanale néew mooy dañu koy xas ba pare day naan ko allahuma innahu abduk wabnu abdik wabnu amatik yow yàlla kii de jaam la yow yàlla kii jaam la kan nga fi wax tey jaam xeexul ak yow ana kan lañ fiy wax ci mbooloo mi ne ko yow jaam bi te du xeex ak yow boo ne fi en cas màccudu tey mu xeex ak yow ngeen naa ni kafe yomal qiyam léegi ah koo fi toogal léegi nga ne ko jaam bi doomu jaam bi sëtëb jaam bi mu xeex ak yow mais ndekete bu deewee ñëpp dañ taxaw ne ko jaam la waaw wa in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahman abda laqad ahsaahum wa addahum adda wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati farda gis nga kon ñoom ñëpp ku ciy dee tamit da ngay ñëw nekk jaam yow yàlla kii de jaam la baayam sa jaam la ndeyam sa jéebéer la yow yàlla kii de bu daan def lu baax yàlla na nga ko fulandal lu baaxam la bu daan def lu bon yow yàlla yaay ka mérito jéggal ko yow yàlla yal na nga ko jéggal yow yàlla ñun de li lañ mën ak moom yow yàlla li nga xamante ne moom mooy farata bi def nañ ko moom mooy suñu mbokkum jullit dee ñu jullee ko yàlla boo ñu fitnaal ginnaawam waaye yàlla boo ñu xaj nag tuyaaba yi nga xamante ne mooy tuyaabay jullit ji jeex na ñu daal di taxañ waa jeenu jëm ak moom fan jëm ak moom sëg yi su nekkee ku baax la woon mi nga naan qaddimuuni qaddimuuni gaawe leen ma gaawe leen ma pour lan pour mu egg këram ba mun a noppalu waaye bu nekkee ku bon la woon li muy wax mooy yaa waylaha ayna tadhabu biha woy man fu ngeen jëm ak man tey nag waa Sénégal dem nañ bay woy wóoy dem nañu bay woy wóoy wut fi ay mbaxanay wóoy dem nañu ba nga xam wut fi ay kaset wóoy ba koo fi gis muy tëb di wóoy amoon na fi jamono bi mu xëyee xale yu góor yi ku ci amul mbaxanam wóoy buy jar douze mille cinq cent nga dagg sa bi weeru yaay daf ko wóoy wala nga dagg sa pili yoru papa daf ko wóoy li amoon ñu ne yaa way laha way li way li nga dégg gars yi tey di dem bay way way li déggoo leen ko fi kasitu way li déggoo leen ko fi dem ba ay kaawey way li génn sax way li mooy lan mooy xuru safara xur la ci biir safara naafeqee sax dañuy daw xur woowu yàlla nee na xur woowu ña ko moom moom mooy jullikat yi jullikat yi nga xam dañuy sàggane seen julli dañuy sàggane seen waxtu julli yàlla nee na xur woowu ña ko moom waylu lil musallin alladina hum an salatihim saahuun fële mu ne waylun li kulli affaakin afi waylun yawma idin lil mukazzibin ñaata yoon la yàlla wax waylu waylu ko gis nga mu ne yaa waylaha ayna tadabu biha wooyu man fu ngeen jëm ak man mbokk yi baatam boobu lépp koy dégg ba mu def nit ak jinni ñu yéen waa ji indi ko ci sët yi gar kon gis ne ndem nag daa wax ne boole leen maag kii tax kon lan moo tax nag ngay ànd ak moom ci adduna bi di def lu bon moo tax subhanahu wa taala mu ne ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا في ndem mënuloo fi nit dara fii ndem mënuloo fi nit dara fii ndem mënoo fee taxaw ne yàlla bul ne ne président bi bul def diw nangam nan ngay taxaw ci kanam yàlla ngay foqar ñi ah comme mbokk yi waa jàngoo dañ ko nekk dañ lam suul gas ba mu xóot ñu suul daa di wane ginnaaw di dem nu mbokkee di dem mbokk yaa ngay dem waaye fekk na moom yéen bi la ma doon def mooy pour ma saan suulub néew ba pare dafa naan ah gaañ ñaanal leen seen mbokk mi kat ndax fii kat ñu toll nii dañ koy laaj te leen koy ñaanal yàlla saxal aw làmmiñam ndax fii mu toll kat des koy laaj fii mu toll des koy laaj mbokk yi ci place boobu su gaa yi jógee di dem yonent bi saslam nee na ci xadis barra ibnu aazib nee na wa innahu la yasmaa qara niaalihim ida wallaw anhu mudbirin mu ne moom waa ji day dégg cappar cappari tànki gaaya bu ñu wanee ginnaaw di ñibbi yu daal di koy dégg ñoom ñoo koy dégg ñaari malaaka waaye avant ñaari malaaka yi di ñëw am na kuy njëkk wax ak moom muy pax bi pax bi muy njëkk wax ak moom pax bi daf naan ko ana baytu duud ana baytu diq ana baytu lxurba ana baytu lwexsha hada ma ahdat laka ya ibna adam kama da ahdat kay man maay këru méytaane maay këru xataay maay kër gi nga xamante ay sax rek laa def sama biir ba mu fees lii de laa la pare yow doomu aadama bi ana lan nga ma pare ana lan nga ma pare woon ah Fatima doomu Muhammad kër bi mu génne àdduna Fatima doomu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kër bi mu génne àdduna ñu ñëw di ko rob Abu Zar taxaw daan yéen waa bàmmeel bu ngeen xamul ki lay indil tey kii mooy Fatima kii mooy doomu Muhammad kii moom mooy ki nga xamante bàyyi ma gune woon ci yàlla yónni woon kii mooy doomu wax a wax a wax al manaqib yoon bi ba pare ci biir bàmmeel du am luy tontu naan ko ñun faalewuñ kenn ñun kuñ fi mën a suul dañ koy lekk faalewuñ kenn ba kii sax yaa ngoogu sax yaa ngoogu yaram bi ngay diw ay Baudelaire yaram bi ngay diw ay MCG yaram bi ngay dundalee ay ginaar ak ay gâteau yaram bi nga xamante ne moom ngay maanaa naatal ah moom ngay xeesal moom ngay diw li nga xamante ne moom mooy ay diw produit xeesal moom ngay mees karaw gi ngay mees dala wóor la ay sax a koy mucc yomal diyaama ah mbokk yi ndem nag lii moo koy mujj kon lu lu lu lu jar nag leneen li lan moo jar leneen li mbokk yi ci place boobu waaye jooju foofu bu ñu ko nee dallam suul pax mee wax ak moom ba pare lu pax mi wax ak moom borom bi subhanahu wa taala wax ak waa ji am ko lu borom ji wax dafa naan ko zahabu wa taraku wa fi turaabi dafanu walaw dallu maaka ma nafaxuu falam yabqa maaka illa ana fa ana alxayu alladi la yamuut liman almulku yow dem nañu bàyyi la fi kenn desul ak yow te même buñ fi desoon ak yow tey duñ la fi mënal dara kan mooy buur tey kan mooy buur chaabu Iran xam na loolu keroog ba mu tëddee ci sukaraatu dee Shah bu Iran président Iran roi Iran ba keroog ba mu tëddee ci sukaraatu dee adduna bi yëpp américain yeeg expert kii yeeg yëpp kenn ku nekk daw ñëw ne da koy sëbësi. mbokk yi yàlla moom bu nammee bu jaamam dee kenn mënu ci dara gars yi daw kër kër kër kër këpp keroog Cheikh Abdul Hamid Kishki mi koy filmé mu ne arsala al maliku malakan li yaxuda ruuxa al malik fa man il malik fa man il malik manil malik mu ne ko buur bi yàlla yónni na ab malaaka pour mu ñëw jël si ruuxu buur bi ana kan mooy buur tey ndax buur bi di jël si wala buur ba yónni buur bi di jël si mooy buur wala buur ba yónni ki yónnee mooy buur ndekk de kooku mooy yàlla ah allah subhanahu wa taala su wax ak jaam bi ne ko yow nag gaa yi dem nañ bàyyi la fi te si suuf sii nga doon dangi si wala si suuf sii nga doon kër ci kër ci bu dëgg dëgg fii lañ la suul tey te buñ fi desoon ak yow mën na fi dara te kenn def ko yow tey ku dul man kan mooy buur li koy sant mooy yow rek yaay buur keroog mbokk yi bu loolu boo paree ci waxu yàlla boobu ak waxu tax moom malaaka mee nga xamante ne mooy nakiir ak mu nakkir muy ñaari malaaka yoo xamante ne yonent bi sallam nee na ñaari malaaka yoo xamante ne seen bët yaa nga xonq ba mel ni ki li nga xamante ne moom mooy ay xali safara malaaka yoo xam ne seen baat yaa ngay riir ba mel ni ki ab tonnerre ak dunu malaaka yoo xam dañoo rëyoo rëyoo rëy te la ngay woon seen rëyaay mooy mbolda ya muy yore bu ñu tegoon benn mbolda ci suuf waa adduna muy ne yëkkati mbolda yooyu dañuy ñëw ñu ne rëy gi waa di dëj ne ko rëy kan mooy sa borom Omar ibnu Xattaab dafa toog yéen ci islam benn bés yéen bi di nettali malaaka yooyu seen rëyaay di nettali ma malaaka yooyu seen melokaan Omar ne yéen bi est-ce que malaaka yi bu ñuy ñëw ci man yomal qiyaam wala bu ñuy ñëw ci man ci biir pax kay fekk maa ngi ànd ak sama xel mu ne ko waaw da ngay ànd ak sam xel keroog da ngay ànd ak sam xel mu ne ko ndam damay ànd ak sama xel bu kenn gis man bu boobaa bu gaa yi egsi bu naa ma sa borom rek ma ci bisu nga xam sa jub ñu déglu Omar keroog bu mu génnee àdduna keroog bu Omar ibnu Xataab génnee àdduna ah saxaaba yi toog di xalaat Omar waaw man nan la war a tontanteeg malaaka yi benn saxaaba bu mag ñu naan ko Usmaan ibnu Affaan tëdd ba guddi gént gis kii nga xamante mooy Omar ibnu Xataab gént mu ne ko waaw Omar nan nga tontu malaaka yi Omar yow yéen nga ñu mu ne ko ah mu ne ko waaw waaye li ñu jaaxal ci yow mooy nan nga tontanteeg malaaka yi muy nakir ak munkir mu ne ko bu ñu egsee si man avant ñu di ma laaj kan mooy sa borom yow Omar man Omar maa leen nit maa leen gëdd yuuxu leen ne kan mooy seen borom yéen ñaar kon gis nga kii dem bay laaj ay malaaka kan mooy seen borom yéen ñaar tiitul jàqul yàlla loolu lay wax naan yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli sabiti fi lxayaati dunia waaye nag su leen mbokk yi loolu nga xamante ne moom la nakir ak munkir muy malaaki mi nga xamante ne nee na man xaw ma kenn kenn xamu ma kenn nee na man kenn xamu ma mbokk yi place boobu war nañ koy xalaatal bu ñu ñëwee ba jàpp ni ci dëj dëj dëj ko mu toog ñu ne ko kan mooy sa borom la muy tontu keroog bu nekkee ku baax la woon dinaan def sama borom mooy yàlla bu nekkee ku bon la woon la muy wax mooy ha ha la adri xaw ma ko xaw ma ko mbokk yi moom waa jooju bu nekkee ne gars yi laaj nañ ko ku nekkoon sab yonent la muy wax mooy sama yonent mooy yàgg mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu nekkee ku bon la woon la muy wax mooy ha ha laa adri xaw ma mbokk yi lañ koy laaj moom mooy lan moo nekkoon sa diine mu ne sama diine moom moo nekkoon lislaam bu nekkee ku bon la woon la muy tontu kare rek mooy maanaam ha ha laa adri man xaw ma xaw ma kon dañu xool ndax ñun nag dañuy bokk ci ñuy xam ak ñi nga xam ne dañuy wax naan xaw ma su nekk dañuy bokk ci ñuy wax xam nañu bu boobaa dañ koy jëf ci àdduna dañ koy gëm ci àdduna jëf ko waaye bu ñu buggee bokk ci ñi nga xam ne dañuy wax naan xamuñu di maanaam dañ koy bañ a jëf dañ koy bañ a fas bu boobaa bu ñu dee bu ñu laajee dañ naan xamuñu mbokk yi mbokk yi ci yàlla mbokk jullit yi ñii la yàlla subhanahu wa taala di faate bakkan yi di faat bakkan yi ba moom yàlla moo xëy benn bés rek mu daal di ne malakul mawti mu ne ko am mu ne ko man daal soxlaatuma ci àdduna bi dara mu ne ko malaaka mala nga xamante moo yore bufte yi mu ne ko ëffal bufte gi malaaka miy faat bakkan yi malaaka mala daal di ëpp bufte gi keroog gaa yi raj raj loo malaaka mi nga xamante moom mooy malakul mawt di ramasse bakkan yëpp bokk àdduna bi yëpp daal di yëpp àdduna bi yëpp yëpp daal di jeex tàkk waaye nag subhaanahu wa taala la mu wax dafa ne ah wa nufiqa fi suur fa sa'iqa man fi samawati wal ardi illa man shaa rabbu suñu ëppee bufte gi ñëppay daal di wow ñëppay daal di dee ñëppay daal di dinaa naa dee ba mu def ñu sob sa borom ñan ñoo ñu sob sa borom ñu sob sa borom moo ci biir Mikaayil Azraayil Asraafil xamatul arsh borom bi subhaanahu wa taala ne malakul mawti ana ku des mu ne ko yow yàlla kenn desul ku dul Jibril ak Mikaayil ak Azraayil ak xamatul arsh ak Asraafil mu ne ko yow Jibril mu ne ko yow malakul mawti mu ne ko am mu ne ko demal nga faat bakkanu xamatul arsh ndax xam ngeen ne xatta malaaka yi dañuy dee démb bi yàlla ne kullu nafsin zaiqatul mawt malaaka yi dañ ne lasna nufuusan wa innama nahnu arwahun muqaddasa ñun duñu ay bakkan ñun ay ruuxi sala lañ mu ne kullu kullu man alayha faan kuy dox ci kaw suuf ku nekk day dee malaaka yi malaaka yi ne ñun dëkk ñu ci kaw suuf lasna sukkaan al ard wa innama nahnu sukkaanu sama yàlla soo tam mu ne kullu shay'in haalikun illa wajhah lépp ay alku ba mu des borom bi subhanahu wa taala ci la malaaka yi door a amee yaqin ne ñoom dañuy dee mbokk yi ci place boobu nga xamante ne jibril bu wala malakul mawti moom bu ñëwee borom bi sax ne ko ku des mu wax ne jibril ak mikaayil ak azraayil xamatu arsh yi ak moom borom bi sootal ne ko nag dama nga faat bakkan yi no arsh mu dem faat bakkan yi ñoom ñëw taxaw borom bi ne ko ku des mu ne ko kenn desul ku dul mën a jibril ak mikaayil ak azraayil yàlla ne ko aywa na seen bakkan yi faatu faatal seen i bakkan mu dem kooku mu demee wut mikaayil pour faat seen bakkan arsh jooy jooy yu metti bu arash jooyee jooy yooyu yàlla subhanahu wa taala dafa naan ko yaa arash ban ngay jooy mu naan ko yow yàlla ayaamooti jibril wa mikail wa azrail ndax jibril ak mikail azrail dañuy dee yàlla na ko uskut yaa arshi fa inni xalaxtuka lima tara yow arash noppil lii nga gis tey moo tax ma sàkk la kullu shay'in haalikun illa wajha léppay dee tey ba mu des man yàlla subhanahu wa taala foofu nag du maanaam arash day daal di noppi jibril ak mikail ak azrail daal di taatu kii nga xamante ne moom mooy malako mooti ñoo taxaw ci kanam borom bi borom bi da ko ku def mu taxaw xool xool mu ne yàlla seet naa de waaye kenn desul yow ne ko waaw yow nag mu ne ko waaw fàtte woon naa saa bopp waaye man nii de man maay ki des te xam naa lu mu yàgg yàgg damay dee yow nag yow borom bi antal xayu ladi laa yamut yow yaay fexal yaa fi dund yaa fi sax te doo dee mukk borom bi soo tax dafa naan ko nag ay wa sukuraatal mu daal di sukuraat sukuraat bu méttee métti mu jooy jooy yu métti yàlla ne ko waaw yow lan ngay jooy mu ne ko li ma jooy loo mooy méttu dee su ma xamoon ne nii la méttee kon ba nga ma ba nga ma sante pour ma faat ay bakkan kon di daa doon gàntal wax nga jox ko keneen waaye nag xaw ma woon yàlla na ko nag kon léegi ñëpp yaa malakal mawt yow malakul mawt daal di dee maanaam deewal mu daal di dee ci saa si moom malakul mawt mbokk yi nii la borom bi di defee ci gàngu naayam bi borom bi def ci kàttanam bi borom bi def ci nguuram bi bala ko neex moom borom soo tala mu daal ni malaaka yi bi nga xamante mooy woon ruux bi maanaam mooy woon bu tegi mu ne ko ati jugal malaaka mooy nga xam te mooy rawam ak ruux yi mu daal di ko aywa jógal malaaka ma daal di bërëg mais que ne ëppal ci buftam mu daal di ko buftee bufte ga daal di génn bakkan ya bakkan ya di naaw ci diggante asamaan ak suuf benn bu nekk dem di placé wu ci boromam. yàlla subhaanahu wa taala nee na foofu bu ñu ëppee bufte gi mu daw dugg seen borom toog waaye foofu yàlla dafa ne wa nufixa fiihi uxra fa idaa hum qiyaamun yanduruun suñu ëppaate ba ñu ñëw rek yéen ñëpp yaa ne bërëg buy ne bërët dañuy def nooy kàccoor yi di wax naan waaw man ba'athana min marqadina hada ana kan moo ñu yee fi mu doon dëgg doon nelaw ana kun fi yee gaa yu baax yi daan hada ma wa'ada arrahmanu wa sadaqa almursaluun lii la yàlla waxoon te ne yàlla yin ñi woon waxoon nañu dëgg ndek ne lii mooy dëgg mbokk yi gaa ya waaxu keroog wa amatil wujuhu lil hayy alqayyum keroog kanam yëpp daal di torox kanam yëpp daal di ñëkk kanam yëpp daal di sëgg sa ngeen ngir kan ngir màggaayu borom bi subhaanahu wa taala waaye mbokk yi keroog ki sooy dëgg mooy ki yéen woon ak tàccorte ki sooy dëgg mooy ki nga xamante ne ak banditisme moom la defoon ci boppam kooku mooy ki sooy kooku mooy ki torox keroog mbokk yi mbokk yi bu gaa yi jógee di dem am na ñoo xamante ne ñoom nuuruhum yasaa bayna aydihim wa bi aymanihim seen leer yaa ngay dox seen kanam yi ak seen ginnaaw dinaa seen kanam ya ak seen i ndeyjoor li naan gaa ñi gaa yi di wax naa rabbana atmim lana nuurana yow borom bi mottali ñu suñu leer lu tax gaa yi di wax yow yàlla mottali suñu leer mooy leer gi dafa am fu mu yem mooy ci seen kanam ak seen i ndeyjoor càmmoñ yi ak ginnaaw yi amul leer ñu naan nag yow yàlla nañu leer gi wër loolu moo tax ñu naan rabbana atmim lana nuurana mbokk yi am na ñoo xam ne amuñu dara ci leer ñu ngay dox ci lëndëm ay kàmb yoo xam ne ay jiita nga fa ay jànkalaar ay jaan ay ñàngoor yoo xam ne kenn suuf si mel noona ñu nga ci biir pax yooyu ñuy fett gaa yi ay kambi safara gaa yi di yuuxu naan gaa ñi hey gaa ñi unzuruna naqtabis min nuurikum hey gaa ñi xaar la ñuy nit seen leer googu leen gaa yi di wax irji'u waraakum faltamisu nuura delluwaat leen ci àdduna ngeen wute woon foofu ak leer ndax ñun ci àdduna li ci woon ngeen wute woon leer gii mbokki jullit yi nañu xam ne place bi leer mënu fa am lu dul leer dafa kiyee bàyyil boppam leer mënu faa am dul leer gi nga xamante ne moom nga gëmoon leer gi nga gëmoon mooy leeru laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah leer googu mooy li nga xamante ne mooy mën a dimbali keroog mbokk yi waaye bu nekkee ñëw nga fa àndoog leer googu xanaa leeru kàccoorte leeru banditisme leer goo xamante ne da ngaa nekk armatan leer goo xamante ne da ngaa ñëw nekk koo xamante ne benn boy disco nga da ngaa ñëw nekk benn boy boo xamante ne booy rappeur nga da ngaa ñëw nekk benn boy boo xam ne booy sappeur nga ne la wóor na li nga xamante ne mooy leer googu eggul fële leer gay eggale nit ñi keroog foofa mooy leeru laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah mbokk yi ci place boobu gaa ya waaxu ñoom ñëpp ñu egg si nga xam ngeen ne bu ñu jógee ci biir bàmmeel yi kenn dootul tala ci kenn kenn dootul tala ci kenn kenn dootul faale ci kenn kenn ku nekk boppam lay tal kenn ku nekk boppam lay tal gaa yaa ngay daw ñuy wër-wërloo kenn ku nekk ngay daw moromam gaa ngay daw ndeyam kër gi daw doomam kër gi daw baayam kër gi daw ndeyam kenn ku nekk ngay daw ku ne waaye ci biir loolu ndey dinay daw yenn saa yi doom doom di daw ndey ba mu yàgg ñu tas ci biir as bëkkanti ndey na ko hey doom sama biir bii laa la ëmbeewul sama ween yi moo nekkoon sa añ moo nekkoon sa reer moo nekkoon sa ndékki ci sama lupp yi laa leen dëkk moo nekkoon sa chaise ndax doom tey amoo fi benn tiyaaba wala as tiyaaba soo mu mën a sarax tey ba mu mën a jéggi place bi doom dina ko yaay yelente koon wala ak a neexoon mu mën laa dimbali waaye mbir mi gis nga ko géej gi daa sàmbaraax géej gi daa kaaye tey yaay gi ne ko doom de tey nga maa dimbali foofu mu ne ko yaay géej gi daa kaaya yaay gi boñe ko mel ni ku koy forcé mu ne ko yaay boo ma forcé soo ma poñee sa yaay nga ne di ñëw yaay gi daal di ñëw bërëb bàyyi doom ja daal di daw moom it ngir balaa kaayaay mu fekk foofu mbokk yi nañu xool place bi ndem Ahmad Demba day daw ndeyam di daw baayam Seydou li daw ndeyam ak baayam keroog ku yaakaar Ahmad Demba wala nga yaakaar Seydou li keroog torox na. kenn ku nekk keroog am nga mbir mu la doy. keroog kenn ku nekk keroog am nga lu la doy. borom bi subhanahu wa taala borom asamaan ak suuf moo ne li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi kenn ku nekk keroog am na mbir mu ko doy. mbokk yi man mi nga xamante ne aw ma bu ma paasu shalom bu ma taxawee naan dama leen di yóbbaale keroog li nga may wax waane nga da ngaa sob da ngaa dooj kàcc gi xamal nga ne da nga ko am fii loolu nga may wax kon nag ko nga xamante ne motalagoo xamoo ndax dees na jégal wala dees na jégal boo na nga foo yóbbaale keneen keroog sumu waay kenn doonu laa torox kenn doonu laa bon mbokk jullit yi ñu xam ne place bii place bu doy waar keroog doomu aadama yi dañuy ñëw taxaw rabi àll yi ñu indi leen ñu taxaw ci benn pingala doomu aadama yi ñëw wër leen nga gis keroog muus ak xaj keroog di fo waaye nga gis keroog béy taxaw ci kanamu bukki keroog di jëpp jëppi bukki di ko faale ngir keroog moom moomu keroog am na lu ko doy moom it ngir moom bukki am na lu ko doy yàlla keroog àtte loolu nga xamante mooy rabi àll yooyu ba nga xamante ne xar mi amoon béjjën doon ndëkk xar mi amul béjjën yàlla dina saxal xar ma amul woon béjjën mu saxalal ko béjjën na fayul ci xar mi amul béjjën su fayoo ko ba pare mu ne leen ay wa kuunu turaaban nekk leen suuf keroog la yéefar bi di xool bi ba mu ne ah yaa laytani kuntu turaba wooyu man yelante kon ak a neexoon ma nekkoon suuf xool leen doomu aadama ni ko yàlla terele xool leen doomu aadama ak ni ko yàlla fonke bu demee bay wax boppam man yelante koon man wala ak a neexoon ma nekk suuf mbokk yi kooku toroxul ndax toroxtaane mën na passé bi mbokk yi ci place boobu nga xamante ni keroog maanaam rabi àll bi ñëw taxaw doomu aadama yi ñëw taxaw ci muy ñëw wër leen malaaka yi ñëw wër leen sa borom dikka gàngu naayam googa sa borom dikka kàttanam nga keroog sa borom dikka nguuram nga keroog wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jia yawma idin bi jahannam yawma idin yatadakkaru l insanu wa anna lahu dikra keroog sa borom dikk keroog jahannama nga taxaw fële yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen ci benn xadis jahannama day taxaw keroog ñu ngi koy yeew ci juróom ñaar fukki junniy chaîne chaîne bu nekk juróom ñaar fukki junniy malaaka nga ci jàpp safara di diree koog ñoom naan yàlla bàyyil ma lekk ñi nga xam ne laa weddi woon yow yàlla bàyyil ma lekk ñi nga xam ne ñoo la weddi woon fa zarni wa man yukadibu bi hadal xadis yàlla naa ko noppil waat naa ko ci sama màggaay waat naa ko ci sama tedd nga man yàlla la am la am na jahannama min al jinnati wan naasi ajmain dinaa feesal ay jinni ak i nit tey ci jahannam mbaa ñun duñ bokk ci ñu koy fees mbaa ñun duñ ci bokk mbaa ñun duñ ci bokk yàlla yàlla musal ci ñu bokk ci ñettey dugg yal nañu yàlla musal ci ñu bañ a bokk ci ñooñu mbokk yi yal nañu yàlla musal foofa yawma naquulu li jahannam hal imtalaat wa taqulu hal min mazid bés boobu nga xam ne yàlla dafay woo jahannam rek waa jahannam fees fees na mu ne ko déedéet yàlla boo ma dolloo ma jël boo ma dollee ma jël mbokk yi bés boobu yal nañu yàlla musal rabbana asrif anna adaba jahannam inna adabaha kana gharaman innaha saat mustaqarran wa muqama mbokki jullit yi dañu xoolaat place yi sa borom keroog mu wàcc jant ba mu tolloog bopp doomu aadama yi tolloog chabre yuri di baax ñii di ñaq ñii dem ba tey ñaq ñi ciy jot ñii di dama dem ba nga xamante ni feeñ ñii di dama dem ba macha allah mbokk yi gars yi diit jàq lool yàlla mel ni ki dafa amoon lu mu rocc woon ci ñoom mu dellowaat leen ko gars yi daal ne eh mbir mi metti na kaay leen ñu daw dem ci suñu maam aadam ni yàlla sàkkoon ak loxoom ñu ñaan ko ndax mu ñaanal ñu suñu borom yàlla teggee ñu métti bi ñu nekk tey gaa yi daw dem ci aadam aadam na leen hey yàlla lam ma tere woon mooy benn mbir dong benn bàkkaar dong la amoon ñu ne ñaata bàkkaar benn bàkkaar dong la amoon mooy lan mooy yàlla daf na woon ajanaa ni nii lu neex lekkal waaye garab gii moom bu leen ko jege wala taqraba hadihi shajara fa takuna min adh-dhalimin bu leen jege garab gi ndax su ngeen ko jegee fa takuna faxu saw bi yàlla fa takuna jege gi ngeen koy jege dina tax ngeen nekk ngeen bokk sa tooñkat yi mbokk yi aadam daal di dëgal bopp dem lekk ca garab ga yàlla subhanahu wa taala daal di koy génne ajana bàkkaaram boobu lay jiit yawmal qiyaam mu naan man kat bàkkaar boobu xaw ma ndax yàlla jéggal na ma ko wala jéggalu ma ko ndax sama borom mer na fi mer moo xamante ne ragal naa ne ko waru koo sipp tey ci kaw kenn ku dul man kon nag sama bopp doy na ma sama bopp doy na ma ñu ne aywa kon nag danañ ci nuux mu egg ci nuux nuux ne leen hey sama bopp doy na ma sama bopp doy na ma ñoo dem leen ci Ibrahim ñu dem ci Ibrahim Ibrahim ne leen hey sama bopp doy na ma sama bopp doy na ma ñu ne kon nag dem leen ci ki nga xamante ne moom mooy kii nga xamante ne moom mooy Moussa ñu egg ci Moussa Moussa ne leen sama bopp doy na ma sama bopp doy na ma ñoo dem leen ci Isa Isa ne leen sama bopp doy na ma sama bopp doy na ma ñoo dem leen ci Muhammad ñu egg ci Muhammad daal di ne ko yow la yàlla yónni yow yaay xaatamul anbiya yaay imamul mursalin yow Muhammad kaay nga ñaanul sa borom Muhammad waaxu ba egg ci suufu gàngunaayu boromam egg ci suufu arasu boromam mu daal di sëpp jëm ba ca suuf daal di ne yaa rab mu tagg borom bi tàkk ko fa kañ ko fa keroog borom bi daal di ne ko yaa Muhammad irfa rasak wasal tu'ta washfa tushfa yëkkatil sa bopp nga ñaan ñu jox la ñaanal ñu jox la ram mu ñu jox la nga ram yow Muhammad yéen bi bu jógee keroog bi woo ndax doomam Fatima ndax yaayam Amina ndax baayam Abdallah ndax maam Abdul Mutalib ndax ay doom ngay woo keroog déedéet yéen tamit keroog li muy wax mooy yaa rabbi ummati ummati yow yàlla sama xeet bi sama xeet bi ndax xeetu Muhammad ni la ñu mel ndax xeetu Muhammad tey ni la ñu mel tey koo ci wootee mu naan waaw man xeetu Muhammad ci laa bokk koo ci wootee mu ne la man maa ngi bokk ci gën gi xeet xeet woo xam dañuy naan sàngar xeet woo xam ne daganal nañu sàngar xeet woo xam ne dem nañ ba daganal ngóor jigéen xeet woo xam ne dem nañu ba daganal tey li nga xamante ne moom mooy yamba daganal li nga xamante ne moom mooy xeetu dorog daganal li nga xamante ne mooy musique daganal lépp lu xaraamoon araama lépp lu daganoon xeet woo xam ne duñu julli xeet woo xam ne duñu woor xeet woo xam ne duñu joxe azaka xeet woo xam ne dañuy am alal da mën a gaañu duñu dem màkk mbokk yi fii tey ndax xeetu Muhammad di leen mel xeet woo xamante ne tey koo ci woon a ko kaay joxe sa alal ci yoonu yàlla subhanahu wa taala la muy wax mooy intérêt ci seenu intérêt ci seenu bokku ñok saxaaba yi nga xamante ne démb ñoom dañ doon dem fi sabilillah ba seeni tànk di tekkatoo waaye lépp ñu naan ko yàlla nañu ko yàlla defal fii ma waaye bi ni xasanatina yawmal qiyaama ñoom saxaabatu rasulillah ñooy meloon démb ñun nag tey da ngay nekk benn waay nga jóg ne da ngay dem fi sabilillah waaye fi sabilillah fi la yem ci làmmiñ wi waaye bu dara desul lu jëf gi doo ko def doo ko def wala yaa ngi koy def fekk sa xol baa ngi bon lii la yàlla waxoon démb wa maa yuminu aktaruhum billah illa hum mushrikuun tey ñi nga fi fekk tey mbokk yi shababu muhammad yéen ndawu muhammad yaa ummata muhammad yéen xeetu muhammad xam leen ni xam leen ne place bii muhammad bu taxawee naa yow yàlla sama xeet bi yow yàlla sama xeet bi duma riirandoo yi ñooy jóg topp ji de duma riirandoo yi ñooy jóg topp ji di nga doon taxaw di wax naa suñu ne muhammad ya sallallahu alayhi wa sallam loxo ca kaw bàkkaar ci suuf bi ñooñu de ci ñi nga xamante ne fu ma saan wax Muhammad ñu ne sallallahu alayhi wa sallam dugal seen loxo seen i poche ñu fekk sànni ci taabal di ñëw ñu def mbokk yi ñan la lan mooy ummatu Muhammad mooy ñu gëmoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëmoon sunnaam dañ ko jëfe taxaw te di ko défendre guddeeg bëccëg mbokk yi ñooñu ñooy ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen a jàll boobu mbokk yi ci place boobu yàlla distribué li nga xamante mooy feuille sànni li nga xamante mooy feuille jëfi gaa yi nga xam ne ñooy saay-saay da ngay gis ku tëb gàddu téeréem ca loxo càmmoñam waaye balaa mu koy gàddu dañuy dóor loxoom ba ca ca ca ñëpp ba mu daal di génn ca colonne vertébrale bi ci ginnaaw mu daal di jël foofu téeréem mu xool mu naan ah waaw maa li hada alkitab laa yugaadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaaha ay waay lan moo ma dal lan moo dal téere bi booboom munul bàyyi bàkkaar bu dijji munul bàyyi bàkkaar bu sew moom daal bu dijji beeg bu sew bi yëpp lay indi moom moom bàyyiwul dara lii mooy la ñu waxoon kaw kaw ba benn waay dafa mën a tooñ benn waay ñu indi ko ci kër buur ñu ne aywa kaa leen toroxal ko kaa leen duma ko ñu wax wax ñaaw tiif yi waa ji def yëpp la waa ji dañ wax keroog waa ji buñ ko dee waaw kaa ñu toroxal la nag mu ne haa um iqra'u kitaab ya gars yi na koy déet loolu kay yomal qiyaam la mu ne ah bés bii kay moo gën a bés moo gën a bon yomal qiyaam ndax yomal qiyaama yuktaa bi xasanaati wa sayyiaati yomal qiyaama dañuy indi samay ñaaw tiif waa dañuy indi samay tiyaaba nag waaw tey nag indi wuñ sama benn tiyaaba samay jëfi ñaaw rek indi tey teg fii kon bés bi moo gën a yées bés yomal qiyaam ñu la kaw kaw bu bi arab wax waxoon mbokk yi mbokk yi na leen xalaat bés bii boo distribué feuille gars yi nga xamante ñoom ñoo ñu texe woon dem këf seeni téere ci sañu loxo ndeyjoor naan gaa ñi ha um iqra'u kitaabiya gaa ñi kaa leen xool sama téere ngi nii man da ak mi naa ci sama examen ba Muhammad mii ma àndaloon ndekete gàccaayulu ma te samay jëf nax saayul ndekete Muhammad mii moo ma jaroon àndal alquran mii moo jaf moo jaroon jëfe islam mii moo jaroon a gëm yàlla rek moom mooy buur ñu ne gaa yi baax di wax waaye ku bon ka moom bu ñu ko joxee téeréem dafa naan yaa laytani lam uuta kitaabiya wooy man yeneen kon kenn du def sama téere yeneen kon man ma bañ a xam sax lu ñu may àttee waaw bu nekk borom alal bu nekk borom mbooloo la woon il faut mu jooy borom alal dina jooy la muy wax mooy maa arna an ni maaliya sama alal jëriñu ma woon sama alal li muy bëri bëri yëpp jëriñu ma woon bu nekk borom mbooloo la woon la mu ne la muy wax mooy halaka an ni sultaaniya sama mbooloo ma amoon lépp alak nañ ma toroxal nañ ma gàcceel nañ ma ndax ñoom rek laa toppoon ñu naan ma président mën naa leen camarade ñu naan ma fii waaw sëriñ bi mën naa leen waaw taalibe yi ndongo yi ba ma bañ a jaamu sama borom ba topp la ma neex toppoon la leen neex ba tey ñëw naa fii ndekk te la ma nekkoon lépp ci li naqari borom bi la tey jii nag maa ngi yéen sama téere li yàlla di wax yàlla mu cay teg mooy xusu jàppaleen ma waa jii kàccoor bi la jàppaleen ma ko ibnu abbas mu ne bu yàlla waxee yow ma xiyam jàppaleen ma waa jii juróom ñaar fukki junniy malaakaay cëpp songo na waa jii ci saa si dañuy jàpp waa jii yàlla bu ne xul xulloo yaawal leen ma ko dañuy daal di jàpp waa ji ndoñ ko nañ ko ndoñe mooy dañuy jàpp waa ji lem ko dem ma ay yaxam daal di jël buum ya dugal ci paxe bakkanam mu gën a cay noppam ñu dugal mu gën a ca taat woon ñu daal di koy yeewoo ba mu dëgër yàlla ne fa yawma idin laa yu'adhibu 'adhabahu ahad wa laa yusiqu wathaqahu ahad keroog ni yàlla di mbugale kenn du ko mbugale keroog ni yàlla di yeewee jaamam kenn du ko fa yeewee keroog di yeew waa ji ba mu ba mu dëgër yàlla ne summa al jahima salloo topp nag ngeen sànni ndax ci safara mbokk yi ana kan si ñun tey moom mën a dékku tey tàngooru buur tàngooru buuru mburu ana ku ko mën a dékku si ñun ana kan kan la mën a dékku si ñun tàngooru buuru mburu ana kan du kenn si kon mbokk yi fa kay fa jahannam jahannam ma nga xamante ne maam aadam ba mu jógee ca borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi wàcce ko ci a- àjjana jooju ne ko ñëwal ci kaw suuf dafa ñëw jàpp benn picc rey ko bëgg koo lekk waaye mu seexlu ko ngir picc bi ni muy gën a deret mu daan ne yow yàlla am na safara wu ma gisoon foofu dama bëggoon nga may ma ci am xal yàlla ne ko safara woowu xajul ci àdduna mu ne ko yow yàlla may ma ci lu ma lakk sama picc nii yàlla ne ko safara wi xajul foofa mu wax wax yàlla ne ko xaju ci lu yàlla jël yàlla dafa jël ci safara jahannam lu tolloog benn xooxu tàndarma xam ngeen xooxu tàndarma lu toll noonu la yàlla jël raxas ko si juróom-ñaari géej raxas ko si juróom-ñaari dex daal di koy sànni ci mbooy gi àll bi daal di lakk yàlla daal di jël la nga xamante ne moom mooy xal woowu daal di koy delluwaat ci jahannam daal di ne yow aadama yaag say doom jëkkandikoo leen lii nga xamante ne moo lakk fii loolu mooy safara wi ko mbokk yi safara wii ndem kenn suñu mënu koy muñ fa kay fanan lay muñi safara wële mbokk yi dañu xam ne bëggal mi metti na noonu la yàlla soité tërale benn pont si diggante ak bi maanaam ci kaw jahannam pont boobu mi ngi nekk ci kaw jahannam jahannam nag mi ngi nekk si diggante place bi gars yi di taxaw keroog ak fi nga xamante moom mooy ajal gaa yaa ngay jéggi yéen fay jaar di mel mel ni ki melax ñii jaar fa mel ni ki ñuy raam ñii jaar fa di daw ñii jaar fa di bërëw ñii jaar fa di darmu kenn ku nekk ak na nga doon def mbokk yi yàlla soo tax mu ne wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya waaye nag summa nunajji alladina taqaw wa nadaru zalimina fiha jafiya yàlla ne ne keroog dinaa lal pont boobu te amul kenn ci lu dana fa jaar keroog nag dina am ñoo xamante ne leen di bu max ñuy daal ca biir waaye dina am ñoo xamante man yàlla maa ngi di musal moo ñu gëmoon yàlla yàlla subhanahu wa taala mbokk yi xasul basri rahimahullah dafa am benn bés mu romboon benn xale bu toog di ree rek mu ne ko yow da ngaa yow da ngaa da ngaa kontaan tey mu ne ko lool mu ne ko da ngaa bëgg mu ne ko bu baax a baax mu ne ko lu la dégloo mu ne ko xanaa gis ma dégloo rek ma dégg mu ne ko est-ce que yow jéggeegum nga siraat mu ne ko déedéet mu ne ko est-ce que da ngaa am ci yàlla kóllëre ne dana la jéggil siraat mu ne ko déedéet mu ne kon nag sa fii ma hada baxit lu indi ree yi lan moo indi ree yii ngay ree waa ji daal di tiit mbokk yi kon place boobu nañ koy fàttaliku place boobu nañ koy fàttaliku bu baax a baax muy siraat yonente bi mi ngi koy misaal nee na moo gën a ñëw jaas moo dàq yëngatu wallax njaan te moo gën a sew xarawu bopp mbokk yi te ñun ñëpp fay jaar ñun ñëpp fay jaar mbokk yi gars yi jàll ñooy tarxis tarxis ñooy barastiku barastiku ñooy bërëngu ca biir bërëngu ca biir daanu ndax safara ay pax la waaye ajana ay étage la mbokk yi gars yaa ngay dem ñu nga wuti ajana am na benn place boo xamante muy xawdul kawsar mi nga nekk ci buntu àjjana muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga fa taxaw ci buntu ba keroog yore li nga xamante mooy ay koog yi ay koog di tànk di jox gaay yi ñuy naan koog ya mi nga koy jël di tànk di jox gaay yi ñuy naan gaay yaa ngay naan am na ñoo xamante ne ñoom dañuy taxaw fa ñu taxaw ñu ngi gis koog daa ngi tegu seen i tuñ ñuy naan waaye xamuñu kan mooy kenn di jox yàlla ne wa saqaahum rabbuhum sharaban tahura ñooñu borom bi soo taala mooy jox ñuy naan mbokk yi seetal place boobu seet benn place bi am na ñoo xam ne dañuy daw bëgg wuti li foofa am ñu leen di karkaral di leen di duma ay mbool danaa leen ate sori leen yonent bi naan gaa ñu bàyyi leen ñii xanaa gisoo leen ñii ñii samay nit lañu ñii samay waay lañu bàyyi leen leen ñoo ko yonent bi xamoo ñii li ñu defoon sa ginnaaw yonent bi ne lu ñu defoon yow la nga fi bàyyi woon mu nekkoon sunna lépp nga ko soppi woon mu nekk ay bidaa la nga fi indi woon lépp da ngay woon ni lépp ay bidaa la ñoom dañ ko defa mu nekk sunna lii moo tax bokk ñoom yow yéen ci bi la mu koy teg mooy fa soxxan fa soxxan nañ ma sori nañ ma sori nañ ma sori ku ma xamal wax yow ma qiyaam sori ma foo jëm fan nga jëm ah safara mbokk yi safara yan nañu yàlla mosal ci loolu
أشهد أن لا إله إلا الله
kawsar ci place boobu nga xamante ne fële yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di joxe ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi àndoon ak moom doon ko dimbal ci sunnaam doonte koon gis ñu ko ci bët waaye gëmoon nañu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba pare taxawoon ci sunnaam ñooñu de place boobu ñoom la yonent bi sallam di jox ñuy naan waaye li nga xamante ne ñoom dañoo falsifié woon li nga xamante ne mooy sunna yonent bi sallam indi ay bidaa indi ay caaxaan ñooñu daal dañ leen wax naan fasuxqan fasuxqan sori leen sori leen mbokk yi mais ñoo xam ne place bi suñu jógee fii ci Kawsara lan la gars yi def dañuy daal di wutali buntu ajana fëgg Muhammad Sam mooy fëgg bu fëggee Malik ki nga xamante ne moom mooy Ridwaan Ridwaan li nga xamante ne mooy yore buntu caabi buntu ajana moom mooy laaj ne kii nga xamante ne mooy fëgg kan la kii di fëgg kan la Muhammad ne ko man la Muhammad mu ne ko ah yow mii da lañ ma waxoon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu kon nag yow rek laay ubbil bi maanaam yow laay njëkk a ubbil mu laa di ubbi buntu kon Muhammad mooy njëkk a dugg ajana moom ak i ak xeetam Muhammad mooy njëkk a dugg ajana moom ak i xeetam mbokk yi xeet yëpp xeetu Muhammad si njëkk a dugg ajana yonent yëpp Muhammad moo si njëkk a dugg ajana lii benn xéwale ci xéwal yàlla subhanahu wa taala xéwale Muhammad ak aw xeetam mbokk yi nga xool ajana na mu mel nga xool ak tabaxee ko tam yàlla borom bi subhanahu wa taala tabax nga xool la nga xamante mooy dex ya fay daw dexi soow dexi lem dexi sàngara ak dex yoo xamante ne dexi bi maanaam ndox lii lépp yàlla soo tax def ko mu nekk ay xéewal pour waa ajana nga gis ay étage yoo xamante ne birigu or birigu xaalis lii borom soo tax def ko fa ngay suuf soo xamante ne suuf si day nekk zaafaraan nga gis loo xamante ne tabax yi ci boppam nañ koy raaxee moom mooy nekk jama lii lépp subhanahu wa taala defar ko ngir waa ajana waa ajana yàlla soo taala bu nekkee góor nga mu daal di lay defaat nga nekkat waxambaane nekk si digg doole bu nekkee jigéen la woon jigéen ji yàlla soo taala defaat ku mu nekkat ab jànq nekk xale bu tuuti bu nekk xale bu ab ab xale bu jigéen njegamaar ab jànq bu dëgër xoolal li lépp mu nekk ay xéewal waaye borom bi subhanahu wa taala ci biir loolu mu def xéewal bi gën a rëy ci xéewal yi nag mooy àjjana boo fu duggee dootoo jàmbat te bopp yi metti amul biir bi metti amul damaa soj amul sama baat day metti amul sama ndigg day metti amul damaa sonn amul damaa gëmëntu ajana amul loolu mbokk yi ajana amul lii lépp ngir ajana yàlla soo taala moom mooy ki nga xamante moom moo ko def te moom moo wax ne inna anshanahunna inshaan fa jaalnahunna abkaaran urban li ashaabil yamin moom subhanahu wa taala xéewal googu nga xamante moom ne xéewale waa ajana mu def ay xale yu jigéen ak ay xale yu góor ñoom ñëpp ñu nekk même âge ñoom ñëpp ñu nekk ay morom subhanahu wa taala def jigéen dana fa sol lu mat juróom-ñaar fukki yëre waaye ngay gis yóbbu tànkam ci li nga xamante ne moom mooy ginnaaw yëre yooyu nga si xew bi gën a xew réew ci xewli ajana yi mooy borom bi dem bay woon waa ajana boppam wujuhun yawma idin naadiratun ila rabbiha naadira ay xar kanam yi nëtëx ay kanam yi ay xar kanam yi leer nañ di xool seen borom xewal gi gën a réy ci xewli ajana mooy xool sa borom waaye nag ñi nga xamante ñoo weddi woon seen borom ñoom ah li ma ne dañ leen di yiir li maxtubuun ñoom dañ leen di yiir keroog li nga xamante moom moom seen borom subhanahu wa taala comme mbokk yi nañu góorgóorlu ba jéem a bokk ci ñooñu nga xamante ne ñoom dañuy dugg ajana nañu góorgóorlu ba bokk ci ñooñu nga xam dañuy gis seen borom subhanahu wa taala biir ajana nañu góorgóorlu ba am ci soxna yooyu nga xam te mooy soxna yi ajana ya mbokk yi nga xool ki gën a pauvre ci ajana ki gën a pauvre ci ajana boo demee ci téere ci li nga xamante mooy xadis ibnu Mas'ud boobu ah ibnu Mas'ud mi ngi wax naan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne di dina ñëw yawmal qiyaam borom bi ne ko dawal nga dugg ajana mu daw ñëw fekk ajana buntu baa nga tëju mu ñëw foog ñu ubbil ko mu xool ajana gis ajana fees ci ay bëtam mu daal ne yàlla ajana fees na yàlla na ko dugal mu ne ko ajana fees na yàlla na ko dugal xanaa bëggoo am kër gu toll ni kii aduna bu ñu multiplier dix fois mu ne ko yàlla ndax danga may ñaawal te yow yaay rabbul alamin ndax danga may moke te yow yaay rabbul alamin ajana ki gën a pauvre foofu dina am kër gu ñu multiplier dix fois maanaam kër goo xam ne dootal nekk àdduna àdduna boo xam ne dañ koy fulandi ba mu nekk fukki yoon àdduna ak ni mu yaatoo àdduna ak li fi nekk ci alal àdduna ak li fi nekk ci ay taar suñ na koo yokkalee ba mu nekk fukki yoon nag foo jëm ñu ne nag yow mi yaa gën a ñàkk ci biir ajana kon ki gën a woomal ci biir ajana fu mu jëm ki gën a ëm ki ëppale ci biir ajana moom fu mu jëm mbokk yi ma jox leen rek ku mel ni ki am ko crise biir keroog bi nga xamante ne benn malaaka loolu ci asar benn malaaka ñu dafa mosoon a laaj yàlla ne ko damaa bëgg nga may mul toll ak ay laaf ay juróom benn téeméeri laaf yoo xamante ne mooy koy dooleel mu mun a naaw pour lan wër li nga xamante mooy ajana yàlla ne ko munoo ko mu ne ko daf may ma ko may ma ko yàlla ne ko may naa la ko waaye ji naawa naawa naaw ba sonn daal di daanu ba mu daanoo am benn jigéen ci xoro ay ñëw sëpp ko naka waaye yow sëñ bi sàggal nga ne yow yow daanu fii mu ne ko damaa ñaan yàlla juróom benn téeméeri laaf pour mu wër ajana léegi nag naaw na waaye fii daa daanu mu ne ko est-ce que xam nga fi nga déparé mu ne ko déedéet mu ne ko yaa ngi déparé ci piquetu këru Aboubacar ci biir ajana yaa ngi ni egg goo sax ci un huitième kër gi kon mbokk yi ajana ni mu toll ajana étage la ajana ay xéewal la mooy daarul naim mooy daarul xuld ndax la fa nekk moom mooy ay xéewal la la fa nekk moom mooy mbégte la fa nekk moom mooy yàlla wax ah malaaka yi dañ di wax naan tubtum fadxuluha tey ngeen tey ngeen taaru ngeen duggeen ajana lee malaaka yi wax naan la yàlla waxoon rek inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaa'ika alla taxaafu wala taxzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuucaduun naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati addunya wa fi alaaxira wa lakum fiiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiiha ma taddacuun ajana ña nga xamante ne ñoo fay dugg malaaka yi ñu leen di wax ah yéen di yàlla na jàmm nekk ci yéen lépp li ngeen bëgg dee pare lépp li ngeen bëgg rek ci ajana mi ngi ajana ngay toog ngay picc muy naaw tam nekk giléem nga séen ko muy naaw nga ne waa picc mi moo neex a yàpp picc ma daal di daanu ci palaat ñor xomm ñu suqi ko ba mu baax nga daal di ñëw di lekk saa boo gënee lekk nag ngay gën di am appétit fii ci àdduna loo gën di lekk di gën di ñàkk appétit ajana nag loo gën di lekk di gën a am appétit te doo laaj sata la doo laaj sata la pour dem wanag déedéet amu fa mbokk yi gis nga lii fii nag moom boo lekkee ba pare macha allah boo lekkee ba pare xam nga fi nga jëm rek xam nga fa nga koy versé ajana nag loolu amu fa mbokk yi kon ay xéewal a ngoog nañu góorgóorlu pour bokk ci waa ajana waaye nañu ne yurub na tuuti nag xool nag yuur lu safara ba xool la nga xamante moo fa nekk waaye balaa ñuy dem safara am na gaa yi nekk fay ci ajana dañuy taw rek ne waaw yàlla ba amoon naa benn xarit ci ajana aduna dafa la xool bi mu yàgg mu naa may est-ce que yow sax li ngay wax dëgg la a innaka la min al musaddiqin ndax yow li ngay wax dëgg la est-ce que yow ku dëggal nga yàlla est-ce que yow dëgg jullit nga sax yow xanaa xamoon ni jullit ci xol rek la loolu doon wax waaw léegi nag man dama ko dugal ci ajana yàlla na ko ndax danga kaa bëgg a gis mu ne ko waaw yàlla na ko ay sëppul foofu nga xool yàlla ne fa talaa fa raahu fii sawaail jahim mu sëpp rek mu seen waayam jooje ca biir safara mu daal dina ko yow mii ah su ma yàlla baaxil woon kon da nga ma doon sànq in kitti la turdiin xaw kon nga ma sànq waaye nag walaw laa rahmatu rabbi la kuntu min al muxdarin bu nekk woon yërmande sama borom moo dinaa bokk ak yow foofu tey gis nga ñu jóge foofu nag ci ajana dem fee nga xamante ne moom mooy safara ajana ñoom ku bëgg a gis waa safara da ngay xool waaye ñu xool ndax waa safara ñoom ku bëgg a gis waa ajana ndax da ngay xool wala déet ndax ñoom bu ñu gisoon waa safara waa ajana rek dañuy kontaan waaye duñ ko gis mukk moo tax borom doon di toroxal nga xool ajana ay pax la ay kamb la kamb yu kamb yoo xamante ne ay safara ay jiit jànkalaar ay jaan ñàngoor yoo xamante ne benn bu ci ŋaaŋ la nga xamante ne mooy bëñ kaw ya mi ngay samp si digg bopp yeneen bëñ yaa ngi samp say say say say tànk jaañu fa la nekk safara mu nekk loo xamante ne lu mu gën a tàng tàng tàng tàng yow ngay xintee pour naan yàlla nee na nag wa suqu fiha xamim la nga xamante moom leen di jox foofu moom mooy ndox mu tàng soo bëggee ndox mu tàng ñu jox la ndox mu tàng soo bañee ndox mu tàng ndox mu tàng lan lay jox mbokk yi ci biir safara fii bu set fii bu tàngee lay bëgg ndox bu set fee nag day tàng nga bëgg ndox ñu jox la ndox bu tàng jër nga waxaat dolli moom mu jox la dët nga waxaat dolli moom mu raxal la kook deret nga ne ko waaw yàlla xiif naa mu jox la zaquum nga ne yàlla xiif naa mu jox la bariya nga ne yàlla xiif naa mu jox la xisniin lii nag yàlla neen laa yaakuluhu illa alxaatiuun ñi koy lekk mooy ñi doon tooñ seen borom safaraangoog ak ay métit jigéen ñi doon jaay seen bopp te ñu gis ko tey mu bëri lool ci dëkk jigéen ñi nga xam dañ doon jaay seen bopp ak góor ñi nga xam dañuy jaay seen bopp waaw boo yaakaar ne jigéen rek mooy dem nekk makizaar bi di jaay boppam mais góor ñaa ngi fi tey nekk ay makizaar yu bon ndax góor na maanaam gis bu benn waaye boo xam ne dina bàyyi ko ca Europe ñëw fii yore xaalisam bu dul jeex nekkut góor jigéen ne ko kaay ndaaloog man kaay séeg man mel nii góor ma fay la ay millions mu séeg moom fii ngay gis góor boo xamante ne mbaa bi maanaam jigéen ju ban day ñëw ne ko kaay nga ndaaloog man ma jox la alal bu ñëw ànd ak moom ca loola kon gis nga ak gaa yi nga xam ne dañ doon njaaloo ñoom kat lan la seen borom lan la seen borom di nattoo seen borom dañ di dugal ci benn fuur fuur bi suuf si dafa yaatu kaw ga day xat ñu leen di rajareel foofu di leen di di leen di di leen di lakk foofa waaye la nga xamante ne mooy siit ci seen pays ya mooy siit ci seen awra ya mooy siit ci seen sexe ya loolu moom mooy li ñuy nandal ñu doon naan sàngara fii ci àdduna ana ko bëgg naan li ana ko bëgg naan li kon nag nañu moytu sàngara si bopp lekk ko riba yi ñu ngi leen di duma ña nga xamante ne ñoom ay caaxaan ay fo ñu ngi leen di duma safaraangoog ak métit jigéen ñi nga xam ne nangu leen muur seen bopp yi jigéen ñi nga xamante ne dañ doon xolli seen yaram yi jigéen ñi nga xamante ne dañ doon yokk seen bopp yi ñu ngi leen wékk di leen di siye di dóor di leen di xaañ di dóor te duñu dund duñu dee nag waaw lii mooy nekk ci biir safara safaraangoog waaye kañuy njëkk dugal safara nag borom xam-xam bu dëng la borom xam-xam bu kàccoor boo xamante daawul jëfe xam-xamam ak ki nga xamante ne borom doole la woon boo ko masaan ni mu ne waaw damay dem fi jihaad damay jihaad fi sabilillah te fekk na daf bëggoon rek ñu ne ko waaw jàmbaar ji ak kan ki nga xamante ne alal la yore woon ci saa boo ne ko ni mu ne waaw damay def fi sabilillah damay def fi sabilillah te fekk na la muy def xolam nanguwu ko xolam bon na ca xolam bon na ca moom la muy def rek mooy nañu ne diw daal moo fi def nangam waaye bu defee te waxeesul la mu def boo liggéey mu ne ma nangu ma nangu la ma moomoon kon mbokk yi nañu ragal yàlla subhanahu wa taala te xam na safara la fa nekk metti na lool la fa nekk tàng na lool mbokk yi at nuñ ko mokk mënuñu ko nañu daw safara ak suñ ko mënee kon nag yal nañu bokk ci ñooñu nga xam ne dañuy wax naan ci seen i jëf ak seen i wax yooyu yàlla nañu musal ci safara te nañu bokk ci ñooñu seen i jëf ak seen i wax kon duñ na amin rek tey def lu bon dugg na amin rek te weddi borom dugg na amin rek te weddi suñu yeneen bi dugg na amin rek toog fii di wax naan nangam yàlla baax na yàlla baax na déedéet il faut ñu jëf il faut ñu jëf yàlla doon ñu suturaal mbokk yi kon waxtaan bi xëy na fi dañ ko mën a yemale incha allah ndax waxtu wi presque xat na xataay boo xamante ne mënuñu fee di mën a génn yeneen i yeneen i points yoo xamante ne dañ koy souligner ci biir waxtaan bi incha allah li fi nekk mooy am na yeneen i mbir yoo xamante ne di maanaam day ñëwaat moom mooy ay laaj gi tontu incha allah kon ñu rafet te jekk waxu yàlla ak waxu yonentam la lu ñaaw te dëng te xaw a ñagas tuuti man sama wax la yàlla ak yonentam yi set lañ ci wax jooju maa ngi jégalu yàlla subhanahu wa taala ginnaaw bu leen jégaloo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam kon mbokk yi doon def waxtaan bi ñu ngi leen di wax jusita xayran wa kufita charr bu ko defee tamit dëgg-dëgg ñu ngi gërëm suñu mbokk waa gor yi wa nabatna ala wuludihim iqaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ila an laqad kunna awan shabara moom mi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ñun gaa yi nga xam ne ñooy jóg pour jéem a yëngatuwaat pour jéem a déclarer sunu yonent bi sa sallam yal na leen yàlla boole ci ndaw yooyu nga xamante ñoom la tànnal boppam mu ne ñii de ay ndaw lañu ñoo xamante ne ñoom ñu ragaloon seen borom lañu borom bi suwatal daal leen dolli ak njub ca jamono ba nga xamante ne ñoom jóg nañu ñu ne ñoom duñu jaamu kenn ku dul seen borom seen borom mooy yàlla ndax ñoom bu ñu fi bàyyee borom boobu dem di wuti beneen borom ñoom bu boobaa ñoo jàng ak ñoo def loo xamante naka su dul noonu la.
ألا يأتوا عليهم بسلطان بين ولا هؤلاء هم اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ɓeeɗo weeɓe allah ina woodi dendindiri goɗɗo haɗi men addude heen huuji feewn kono yawaɓe goɗɗum ɗum wona sunna ɗum walla wona sharia
mu ne ndaw yooyu ñooy ñi jàkkaarloo woon ak seen ñoñ ñe jamono ba ñu weddee borom bi ñu naan leen yéen ñii yéen a taxaw tey di wutal yàlla morom te kon ngeen ñëw ngeen jaamu seen borom
ala fof ɓurɗo wadde fenade biɗo allah ne jogui mi rewtete goɗɗo walla mi faddete e yiɓade tawi ala ko woodi hen ɗum dalil mu ne amul kenn ku gën a ñëwee yàlla amul gën a kenn ku gën a tarsu kii nga xamante ne moo taxaw mu ne dafay jaamu borom bi dafay jaamu keneen ku dul borom bi wala dafay taxaw di wutal yàlla morom wala dafay wutal yàlla ab dende
jiginel gal mawɗe yiide hande leydi hen fadde dente mbaɗo hen walla ɓurtoro ni sunna ina kaala ɗum e renji kaala ɗum e aɗum fof yimɓe fof ne keɗon aɗuna fof ne heɗa ɗum ko weltare wonan julɓe kala mbawi wonde mu ne kon del kontaan bu baax a baax kon damay ba gis ci jamono gis ay nit ñu taxaw commencé di publicité waat commencé di wanewaat commencé di jéqër bi waat sunna yonent bi sa sallam di ko leeralal doomu aadama yi mu ñëw nekk comme na ko yonent bi sam bàyyee woon bi maanaa loolu kon dina leen kontaan loo dina leen dégloo ñoom nabirno e hajjatul wadaani wo umiru salamu ala man tabiani dini min yawmi hada ila yawmil qiyama yo jottinanam salminam e kala dewɗo on e dinam ummade dewɗo kalamiɗo hande hañanam danga daron mu ne kon moom mi ngi wax loola waaye mi ngi koy waxaat comme na ko yonent bi waxe woon mu ne na ngeen jotal sama nuyoo ci ñi teew tey jii ci sama xajjatul widaa bi la yonent bi waxoon ci xajjatul widaa mu ne na ngeen jotal sama nuyoo ci ñi teew tey jii ak ñi nga xamante ne ñooy ñëw ba yemal qiyaam so annabi dino fuɗɗinomar woni tumuranke mawo hoto no woni tumuranke est ce que yo beela woodan yimɓe mo ganduɗa ko tumurankoɓe diine enen enen foti hen jogaade weltare mawde ngan tumurankagal mu ne kon bu yonent bi taxawee ne l'islam ba muy commencé démb dafa tumuranke woon te dina delluwaat nekkaat lu tumuranke kon yal na yàlla yërëm yal na yàlla kontaan ci ñi nga xam ne ñooy tumuranke ànd ak l'islam kon mbokk yi war ñoo nangu war ñoo kontaan ci buñ tumuranke ñun tey allah winani qouran kadi wala tahinu wala tahzanu wa antumul alaun in kuntum muminin in yamsaskum qaru faqad massal qawma qarhum mithlu wa tilka al ayamu nudawiluha bayna annas liyalama allahu alladina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu zalimin mana tan no allah wirnoni e qouran julɓe wote cune ɗe wote koye tawi tan ko kon julɓe tan gonɗuɓe e jul- e wonde julɓe nde so allah jaɓi ko noon tan gonat ɗum
mais dafa am ñu borom bi waxoon démb dafa ne woon yéen jullit ñi bu leen yokkat bu leen tiit bu leen yokkat bu leen jàq yéenay féete kaw ndax dem nekk ngeen ay jullit te li tax yàlla def loolu moom mooy bu nekkee ne yéen amu leen di métti ñee ngeen jàkkaar loolu amu leen di métti kon nag yéen ñi am na lu ngeen yaakaar ci yàlla te ñoom yaakaaruñ ko fa kon li tax yàlla nag indi natt yii teg leen ko mooy dafa bëgg a jël ci yéen ñoo xam ne dañuy dee mu kontaan ci ñoom ba ci ñoom jox leen ajana mbokk yi tawi tan on ko muuso moɗon noon ɓe basale e rafiiji e ronkude e dañale adune hay hebrede no guuruɗam ɗon guurdam hande ɓayri koye jihaade ɗum tellino hay ko wona jihaade ko en enen foof ko alko muusi men en muusi hebrede heddi noon enen jogui jorta e allah naatugol aljanna kamɓe ɓe ngala on ɗon jorto
mu ne ba tey dafay delluwaat ci aaya bi mu ne kon comme jihaad yeeg li nga xamante ne moo fi nekk ci ay métit ak yooyu yëpp mu ne kon jullit bi dafa war a rafet njort ne moom lii ko yàlla teg nekkul lu bon ci moom waaye da koy xéewale loola te da koy yokkal ay daraja te loolu tamit lu ko yàlla di fay moom mooy ajana incha allah ewa tawi noon ko ñalawma idiri joni tan tan hande daña tan hande mbasa jangga cella ɓawa jangga ñawa hande en gona e ko weltare ɓawa jangga gona e sunaha ɗum ɗon ko gostodira tan allah ne waɗi ɗum hakkude yimɓe foof julde hen e keefe mu ne bu nekkee ne wàllu xiif la wala wàllu mar wala ñàkk tey am ëllëg du maanaam loolu moom benn mbir la moo xamante ne yàllaa ko def si diggante nit ñi te loolu moom dañ koy weccee rek nan ewa ɗum noon woten kuulen haydara hay sinno woni noon tolmiɗen koye tumurankagal ngal julɓe ne mbaɗe hande barakalla ɗeɗo dille ngal ɗo dental hay seɗen jaggira goto goto en mbaɗe e din hen mbaɗa hen sunade walla hulde saabu wonde en jiwma en jaadin e sohoda en waɗi mu ne même bu nekkoon ne diine dafa dem ba tumuranke tey ba ñuy jàpp ay jullit di rey tey mu ne ñun war ñoo d'accord war ñoo gërëm war ñoo kontaan ci ànd ak diine ñu ñu ciy rey sax war ñoo kontaan ànd ak diine ba ñu rey ñu ci mu ne ndax lan mu ne ndax gis nañu ay shuhada yu fi jaaroon démb ku demee ne Musab ibn Umayr seen nañ fi ku demee ne ay saxaaba yu bëree bëri ñoo xam ne dee nañ ci yoonu yàlla subhanahu wa taala kon loolu war ñoo yokk courage ci ñu jot ci yoonu yàlla subhanahu wa taala wayno so yimɓuɓɓen mbaɗaɗo tan gañandede en misro ɗi duuɓi e jamal abdel nasar ala ko raddumen warede so wona kaali e diine wonde goto diine tan ka sunna woni diine mbiya yo goppu kalno ko yo mbindu walla jalta e télé kaala mbi goppu mbaɗi taraju mbi ala o wi kanko o windata fiɗen makka no ganduɗan seeto allah goto winde hunde haaldito o yawma feeñama dillen fiɗen ɗum ri walana gonga ɗum noon en foti jogade mu ne kon gisoon nañ fii ñu demee ne ñoom Seydou Xutbu gisoon nañ ko demee ne Hassan Banna Hassan Banna ñu ngi ko rey mille neuf maanaam mille neuf cent quarante neuf ku demee Seydou Xutbu ñu ngi ko rey mille neuf cent soixante six lii lépp ñu ngi lay rey fii ci Égypte te lan moo taxoon mooy amoon ñu taxawoon doon songu lislaam di xeex lislaam ñoom ñoon ñu leen kaay leen ngeen songu lislaam xeex lislaam ñu ne ñoom seen baaraam yi ñuy taxaw di wax ashhadu an laa ilaaha illa di ko seede yàlla ne kenn la ñoom duñ ci keppaat bi di ci signé ay fen kon ndem ñoom duñ ci signé ay fen loolu mooy li sabab ba ñu jàpp leen tër leen rendi ko bandiraɓe nande wi almuminun walmuminatu baduhum min badi yamruna bilmaruf wa yanhauna anil munkar wa yuqimuna asalat wa yutuna azakata wa yuqimuna allah wa rasula ulaika sa yarahumullah inna allah azizun hakim julɓe worɓe rewɓe fof yo jogo yaltare kayen fof jiidi umma e baaba yo jogo femde julɗo gorko juuɗi fof e debbo jogo nden ɗon femde kayen fof nden ne ndewal mu ne kon jullit jullit bu góor ak jullit bu jigéen war nañoo bëgg war nañoo kontaan xam ne ñoom ñu ngi ànd ak yàlla te yàlla moom la mu wax moom mooy jullit bu góor ak bu jigéen ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoom ñëpp ay bokk lañu. war nañoo kontaan war nañoo bëgg ci ñoom bu waruñoo am leen leen di téewale warul am leen di dox seen diggante kon mbokk yi la yàlla wax rek mooy dëgg lenn ci ñoom ñoom méngoo mbir lenn yi ndax lan dañuy digg lu baax di tere lu bon.
yuflikum dinum dogo ɓaarono allah wini ko firru ila llah inni lakum no nawir mubin dogenene fof ɓaarɗene allah woni ɓaarade allah ɓaarade din mum ɓaarade sunna annabi muɗum laamɗenen no julde rewrete ndewen allah oɗon jaafano e ɗum ɗo sabu mon musidɗo men gooto ganda gooto no feewi ɓeydo allah witi yen dogo ɓaarɗene mumen ndewen so jii neɗɗon goɗɗo ene doddo men yen dog garene muɗum yen dogo on ɗon kadi mbattine dugdungal wumemen yen dogo ndu kadi ɓeyden towde ɓaarade e allah alha- alhamdulillah mu ne kon nañu daw ñun jullit ñi daw jëm fan jëm ci yàlla nañu daw jëm ci yàlla te am na benn borom xam-xam ne dem ne yàlla su woote nee na daw leen ngeen jëm ci man mu ne kon nañu bàyyi ñeneen ñi nga xam dañuy woote ne kaay leen daw jëm ci man ñu daw jëm ci borom bi ndax ku daw jëm ci borom bi borom bi làq la te bu la borom bi làqee yàq dootu la mënu la ci dara kon mbokk yi nañu làqu jëm ci yàlla subhanahu wa taala ɓurnoden e l'islam fof lilloje e aduna he fof e macharikil arde wa mawariba wurno dendagal dilloɓe dilli l'islam e wurtinde sunna allah jogano ɗumen ballal jogano ɗumen yaajande wurno ɗumen no rewno ɗumen e fele annabi sallallah alih sallam e sahaɓe en fof ɗe ndewno wa salatu wasalamu ala rasulillahi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nee na yal na yàlla dundal yal na yàlla dimbali ñi nga xamante ñooy jóg pour jihad fi sabilillah ñuy jóg pour tasaare diine yàlla subhanahu wa taala yal na leen yàlla jàppale moo xam ci penku suuf lañ nekk wala ci ma, sowu suuf ak fu ñu mën a nekk yal na leen yàlla jàppale yal na yàlla nekk seen dimbal loolu moom mooy li nga xam ne moom la mbokk mi waxoon wasalaamaaleykum wa rahmatullah hayakallah jazakallah xayr
jazakumullah xayr kon incha allah nañ benn mbokk bu ñu bëgg a defal taalif bu tudd soxna Ndey Kinne Njaay nee na day taalif ci mees ak xeesal kon ñu jox ko kàddu gi beneen mbokk tamit bu tudd jaari nee nañ dafay def xe- dafay def taalif loolu tax jaari ñan
xalaal tubaab yi bon yi xalaal tubaab yi bon yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقت بعض بني في عندي لمن في الناس لمن في الراديو إني في التلفزيون لمن منذ إن شاء الله ما صرف الباخر صردا بالي أهوال لي مولي صندوم يقوم وجولي دنياونا jubleen taalal xale yi te xam ni bis dina ñëw xale bi yey waa du ñëw te yàlla mi yoram ko
baarakallahu fiik wa kassara amsaalak keneen ki gisaguñ ko kon ñu bàyyi mbokk mi mu jox information yi maa ngi wax kenn nag mu bañ a yàkkamti ñibbi fii moom norawul ak Dakar norawul ak Géejawaay norawul ak Yëmbal du bu la bu la neexee rek nga jóg dem fii moom lu lu lu waay toog toog bi nga toog rek soo bi lañuy xaar te huit heures yi lay ñëw wax nga ñu toog rek daal di tontuwaale question yi am na aussi ay information yu fi juddu ma jox mbokk mi incha allah mu daal di
salaamaaleykum wa rahmatullah.
di nuyu bu mag bi.
salaamaaleykum wa rahmatullah. yan mbokk yi. dama leen a bëggoon taalifal si jamono. jamono metti na. mbir yëpp a jaxasoo. kuréel yëpp a ngi jóg taxaw. ku nekk ngi xool fan lay jaar ba raw. su jigéen ñemee taxaw naan moom islam da koo notoo. ba mu nar a sànq ay kuréelu yiw yeewu nañu ngir yeewi naan la yow jigéen bi jógal bëreet utib dërëm góoru tey soo amul duñ la fonk te duñ la yëg ala saa ama yax ku mun yii jigéen aka ñaaw àtte suñu fexee ba génne ma daa di wuñ ñi samay colin wuñ ñi samay yére man jullit bu jigéen su may rawee lu may musal ci lii ma dal naan ma mat sa yaakaar rek fexe nañ ba xam na keex sa samay coli nag samay yére waxatuma muuraay waaye musóor bi sax nangootuma kaa wàccee taalal nañ ma mees ak rax sax ba su ma yokkul bokkatuma dooleel nañ ma ndoxum xeesal ma xolli sama der ba mel ni puune loolu doyul ñu ne ma xanaa xamoo planning familial jigéen lu ko neex wax jigéen lu ko neex def dañ lay fekk ba sama kër may sàkk tuuti ci xam-xam ñu ne ma xanaa xamoo musique jox ma foofu fukk ñu mbaxal carte bleuteurs yi suñu gañee nga umbe bi ñii ñoo ñàkkum ñaam bi wasalaam
allahu akbar alhamdulilah am na tamit beneen mbokk bu fi nekk Umar Xayri si moom it taw doon def benn taalif.
asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh mbokk yi dama leen doon defal benn taalif si jigéen ak màggaay bu ko yàlla jox moo tax ma ne jigéen jigéen yow kat yaay aji texe jigéen jigéen yow kat yaay aji texe yow la yàlla kaween rawatina jigéenu sunu jigéenu sunu dina dox ndànk di wax ndànk tey saj bi xefam ku mu romb na asalaamaaleykum nga la yéen ñii di góor bés boo leen di tànn soxna tànnal ma jigéenu sunu nga mu yaral la sa njaboot te bu ëllëgee ñu doon aji texe xéer ah bu ëllëgee ñu doon aji texe asalaamaaleykum
allahu akbar alhamdulillah mbokk allahu akbar la ilaha illa allah
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله dama leen fee bëggoon a fàttalil taalif bu ñu naan jigéenu tey céy maa ko waaru lii kat waar na képp kuy waaru xolli sa der bii ba muy gas gasi sëf sa bopp bii ba muy sat sati roy nga na saraan ba faf dàq sa col bu gàtt gi maa yéemu baa faf jàq émancipation fokk na la égalité sànq na la sa yoo ndax di taxawaalu di yéegi fafal naaw ak xandaalu New York ba Ankara Paris London Las Palmas ba Casablanca Abidjan ba Oncon réew réew nga nu fa daar loolu ka jar mi utum alal mu tar bàyyi say njaboot ñuy sànku ab ya bu baax si ñoom bul ko séntu te palaatil familia mi nga lëkkoo ay tooke dong la làngoo te palaatil familia mi di buntu njaaloo jànkoo kër te palaatil familia mi di buntu njaaloo jànkam jege maa di saraaxaloo borom xam-xam bu koy daganal yow si diine doo fi sakkanal te yow si daa ngi lay xaar soo moytuwul dina la laal moo yow tee nga bàyyi roy nasaraan lii ngi mel ni xaaraan suute diñ si laan te àdduna mii nga soqatal bisa ngi ñëw dina la teqatal nga bàyyi or bàyyi urus yabu moos nga yor sii sàq bisum keroog dinañ la jagat bisum keroog dinañ la jagat jagat jëwee la barzaq mbokk ak xarit jooy la loo moomoon jeex na loo jëful woon wees na rikk waay soppil bis boobu nga jéem kaa waajal te nga jéem a jiital lépp lu mbaax jiital te du lu ma caaxaana kum toog ni ñu mel toppal lislaam fii sa diine te sellal lislaamay ki la teral ndax sa buumu njaam moo la ko daggal xanaa gisoo yaay suñu Xadija ki ya dundal lislaam ci alalam xanaa xooloo yaay suñu Aïcha ki ya nandal lislaam ci xam-xamam moo yow xoolal Sumayya ki ya suuxal lislaam ci dereetam miir miir miir ak yeneen ak yeneen ak jigéen ñii ci lislaam am nañu ndam kon looy xaar si bay sawaar yow itam communiste mi sàngoonam njooram capitalisme mu ngay sukuraat waaye nag noon ñu ñàkk ñu fenkat kon na nga foog te fuglu te nga muus sa yeewu insha allah lislaamay daan ndax mu jug insha allah lislaamay daan ndax mu jug àddina mooy dellu si alquran kon ñun jullit nañu booloo te bennoo waxtu wii ñuy tasaaroo rawatina ñun jigéen takk mooy li ñu war xam ne liggéey si yoonu yàlla li ko jar sampuraay lislaam ci bépp réew mooy naaw di falfali yëkkati baatu laa ilaha illallah yëkkati baatu laa ilaha illallah ci bépp gox mooy jib di jolli yal na buur yàlla bég te jéggal ñu yal na àjjanay firdaws mu tàbbal ñu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bu ñu sante sunu borom bi subhaanahu wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu war ko jaamu-jaamu bi sell mbokk yi dama leen doon taalifal diggante yaay ak doom ni ñu waree yaree seeni doom sama yaay nga ëmb ma juróom-ñeenti weer ma di la suuxat loo di la wàccu loo ma dina daan loo di la miir loo sama yaay ba fukkeelu weer ba jot sama yaay may gani si àdduna sama yaay yow ngay gani si àllaaxira sama yaay ba yàlla def la te gën sama yaay nga di ma suuxat loo may toog nga di ma suuxat loo may taxaw nga di ma suuxat loo may raam nga di ma suuxat loo sama yaay ba ma mën dox nga war maa jàngal diine islaam nga war maa jàngal diine islaam